boy yo boy lan la pourquoi cette tête là hein parce que le concours bi hein mais boy déconcentre toi ah. mais boy man concours mais nan la def ba jallo mako boy moma j'ai mais xolal boy jang mo mel nonu gis nga réussite là ah échec point quand même deul nga dajal ko ci gaen mais boy d'ailleurs, xol gaay man man man, man, kan man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, am man, man man, man, man, man, man, man, man, man man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, dañu jël sama tur effacé ko dugal fa keneen. oh gëmal yàlla gëmal yàlla gëmal yàlla xam nañu def jaara kër gi ñu la attaaya parce que fi nekk nii sama bopp bi dafa fees. amul problème mënul ma maire bi ah. na ko dégg bu baax waxtaan ko. ñëwala ah. ok ah mais décision boo jël wax ma ko de. amul problème allez au revoir. ba teel may ma ceeb bi sama coono bi kañ la ko yàlla teggi ci àddina rek. Ah. Ndiaye. yaa ngi may soog a nuyu. ku la nuyu yow ma ndékki di ma nuyu ana sama ndékki. da nga maa jox njëgu ndékki ba nga di ma laaj ndékki. su ma su ma la joxul njëgu ndékki man du ma ndékki te moom sama kër gi. man ndékkiwuma. sama yoon nekkul sa ndékki yow man sama ndékki laa wax man. wax nga dëgg Ndiaye. ba pare hmm. yow lan moo waral bi ma ñëw ci guddi di la fëgg nga bañ ma bi ba sa papa yow daal di di intervenir nga war maa mën a ubbi ma te moom sama kër gi dëkkale fa dëkkal fa sa papa. neex lan. Malick Ndiaye. biig ban heure nga ma fëgg 3 heures du matin su ma neexee. waaw jërëjëf waaye Malick Ndiaye dama lay xamal leen juróom-ñaari fan ci biig fanaanoo ci kër gi ma tëdd ba 3 heures du matin li ma fëgg may di ubbi fan laa ko teg. fi nga ko tegee yaa ko xam. Ah. fi xam nga fo fo fo ko tek sama yone ah. ko ci. fa ko tek la ko tege sama juróom-ñaari fan sa yone nekku ci xam nga fan la nekkoon xam nga luma leegal a partir d'aujourd'hui suma ma dematee bëgg di ñëw la ubbi woo ma dinaa la fase di nga gën sama kër. duma ubbi nak ñu duma ray duma ko def de lu leer la la wax lu leer nga ma wax. waaw wax nga dëgg man maay <laughs> sama rab. doo sama mor waaye bu bu bu yaa yor wuy ma bu ko sa loxo laal ci laa wax. sama rab bu ko sa loxo laal ci laa wax. ay sama rab trop waay yow. ah yow ñu jox yow ñu may la jabar dundaloo ko sàngaloo ko ba pare di di di am looy def ah. waaye yow yaa ñàkk jom la. loolu nag xanaa moo la dese doonu. damay sama loxo. papa. ayca fekkul. dóoral bu ma ni bamba. jóge foofu ñàkk jom. mais ma. ah du la dóor ci sa doom la. sa yaay moo tax nga dama poñ. sa dafa la xam sa doom la. xamul mu léegi. ñàkk jom di ngeen génn sama kër tey yow. kër ga tey di ngeen maabal yow yaa sa doom ak sa papa yëpp ci biir di ngeen jëm. kër gi tey muy génn. waaye noppil. yow yaay man mën naa jooy sama dëj dëj bi mën naa ko jooy yoon kenn newu ci dama ne yow Malick Ndiaye kër gi mosoo cee fay luwaas man maay fay bés bu nekk luwaas tey jii dina xam ne xaaral ma ñëw. yoo xam lu ma leen yow du lekk la laay def yow. ma ne buñ ci desee ma lekk la léegi. ngay noog jarak. li ngay def ak sa moustache la takku persil. yow amuloo benn jom ku ñàkk jom nga yow. ku ñàkk jom nga mel ni yow. sa morom yi rek ñoo fi yor jarak. sa morom yi rek ñoo fi yor jarak. yow yow amuloo jom. Ah jëlal sa bagage yi yow boo ah taxoo weeru amoo fi dara. booy taxu di weeru amoo fi dara. yow booy taxu di weeru. kii daf kii lu ko nit di doyee. te mu dem ñu des yàlla yàqal sama bagage naa na xamoon ni ci nekk nag fexe ba dara yàqu ci. dara ñëw ci biir yow mënoo maa noppi yow mënoo maa bàyyi. jéem li ci nekk say bagage ngi soo génnee dama eh, de bu ma tax su ma wax. yow yow Ibou damay wane ne léegi xale yu góor la di ma jaay doon yëpp dañuy fooyee sa baax ndax sa yaay. waaw oh. bàyyi bu amul jom kay noonu rek nañ. jërëjëf waaye feeyoon naa la ba xorom si. bàyyi bu amul nañ koy def. benn affaire naa la ko xamal. dogoon naa yow àddina ak àllaaxira fu ma teg sama tànk bu fa teg sa tànk yaa ngi may dégg ndox mënul nañu dara ñun yàllaa ñu yor yoroo ñu bu ñu yaakaaroon ci yow deegoon nañ bu yàgg ñàkk jom li nga dee eh wala waaye maanaam dee ma kër gi maa koy fay da nga fay dara moo xam de jël sa yi yow ngeen dem ci biir ñu benn jom ñàkk jom Astou Ndiaye Fatou Fall suñu jotaay tey bi xam ngeen li ko waral xam ngeen tey ci ngoon laay dem hmm. te su ma soñoon bu ma demee da ci jàmm rek laa leen di bàyyi bu ma ñëw di fekk mm-hmm. yow Astou Ndiaye yaay magu Fatou Fall Fatou Fall dama bëgg nga sa kan sa mag la sant nanga ko def lu ma te nanga ko bàyyi te nga toppatoo sa njàng bu baax waxuma nag ma dem nga nekk di taxawaal def loo xam ne santuma la ko te te loo def dinaa ko yëg ndax sa nijaay ngi fi leen bu su di leen seet sa maama tam a ngi fi moo moo ñu toog yéen ci kër gi Astou Ndiaye bàyyi naa fi ay bor xam nga ñi ko yor bu weer dee lañ ma war a jox sama xaalis bu weer dee na nga ca dem sama yaay man la leen batale woon ñu jox la xaalis bi bu la joxee xaalis bi xam nga fa nga koy denc ah. lépp lu war ci kër gi naa ko fi bàyyi naa fi bàyyi seen dépense ba mu mat ci jàmm ak salaam rek laa bëgg ngeen nekk ci dara taxuma may dem nag yéen dong yéen ñaar ñi dong tax may daw di wuti ne bu doon man dong am naa ko ma yor seen maam mën na maa yor ba ma dee waaye yéen a tax hmm. ma bëgg nag ngeen am jom góorgóorlu seeti seen nawle yi ngeen nekkal su sañoon daal loolu ngeen may defal ba ma ñëw yam fi ma leen yemloo tam nag loolu la ñuy def sax. Ah. waaw loolu la def waaye nag boo demee xam nga rek léegi li tegu ci temps bi nag yaay bu ñu fàtte moom. loolu jarul sax nga ma koy wax. bala ngaa dem man nag ma fi bàyyi l'argent de poche de. xaalis mi ngi Asu Ndiaye as lu may joxe ak Asu Ndiaye laa koy jox ndax mooy sa mag. loo soxla mu ngi ci moom waaw. salaamaaleykum maaleykum salaam. waaye lu xew. jàmm ak salaam alhamdulilah. ah Mbaye la Mbaye dafa ak seen yaay. jàmm ak salaam ak ni nga ñëwee. lan la. gaawee ma gaaw. ah Ibou Kante ba ma doon sama ibu man waaw maali wax mu ma mën a may wax ak yaayam mok papam ñu genn dima soto sen yon neeku ci suma wax ak sama jabar abib yoonam neeku ci suma wax ak sama jabar ibu kan yoonam neeku sama dom la waaw waye nag joxuma cëru baay won na ma ne tey dafa mag amna doole may wax ak yaayam mu di ma pañe ñu jël sama bagage sànni ko ci mbedd jël na sama bagage nak genn nañ ma kër ga denkané na ko ci yoon bi légui nak dana wut nak dekk ci waye dogor nak ñom ñoom àddina ak ibu kan fuma tek sama tank bu fa tek sa tank man dama wax lu wax Ibou Kane sax li lay wax Ibou ñemewu ko. waaye lan la man li nga wax dama do doo bàyyi ñu la wax yow du mais kon man waxuma dëgg. waye malik waxuma dëgg. malik déglu lo loo Binta Ndiaye moom di la génn. wuñu dara ñëw na bi bi ci guddi diko ko fëgg mu bañ ma ubbi ma fëgg fëgg mu bañ maa ubbi ba papa moo mujj jog ni ma ubbi ko mu mu ni ko ubbi ko mu ubbi ma ma dugg ma xamni waxi guddi baaxul ci goor ma tedd ba bët ma xëy ni sama nek man ma joxe wo fi ndekki may wax mu di mo plan mali xamna naa sa jikko ñu bokk nday ak bay kenn duma la jangal waye mali xam nga ni binta njaay ma yoro ko nang ko wara yore yoruloo ko nang ko wara yore bu la génnee dañoo war nañ la génne maalik ku yor jabar da nga xamni yor nga jabar waye mal da nga da yow lo neex rek ngay def yaangi ci sa noos gudi noos binta njaay mel ne mel kan la noosal man lo ko man maa ya ko xam de dig ma wax nak fan nga nga ma ma sa may noos ak ku may noosal binta njaay daf ma bu du yow nee na bu fan yi nee na nekkoo fa doo fanaan waaw dag man déglu dag maa mos a gis ma nekk célibataire man ba ma ba léegi mosuma nekk célibataire jabar laay takk yor ko waaye jabar ju tak, takk nga bëgg a dox sama diggante ak yàlla ma bàyyi la fii ak yàlla Malick mosoo doon célibataire waaye bind yaay mi mooy sa ñeenti jabar Malick wàcc nga ñetti jabar te jabar ñetti jabar yi mën noo bokk bon kon nag Binta Ndiaye boo ko wàccee du ma bett dara bettu ma li nga wax man jaaxal na ma trop yaa mun yaa dul yor jabar yow Non non non non ngay def noonu ngay non ngay atte noonu laay attee Malick yow daal samay jabar yu may wàcc moom ngay wàññi xam nga lu ñu ma def. xamul loolu de waaye maa la jigéen ñi ñeenti mën noo bokk bon ñeenti jabar maa la nga wacc li mën noo bokk bon jigéen na koy muñal ñu suñu ni suñu ween sëggee noonu suñu xel sëggee da ngeen nuy muñal. waa léegi maa bon kon. déet waxuma yaa bon. yow dama ni yow bala ngay atte da ngay nekk ba gis Binta Ndiaye mbaa nga gis Ibou Kane mbaab seen maam mbaa papaam nga laaj leen lan laa jot ak moom. waaye Maal Binta Ndiaye dafa ñëw ci man bu dul benn du ñaar ma di ko defal di yëkkat la ma am ko jox te doo ko bu ñëwee dama ngaan bu Malick ne ñëw nga fi kon nag Malick dellul gannaaw delu ko nga waxtan binta nday nga jubok mom mënu am jabar jugen binta nday de te man de wat na ci yàlla bis bo ge bo baye binta nday ban paré naa ci say affaire mënu ma am jabar jugen binta jigen yaa fi am pagaay wa lo deug la ñu fi am pagaay ci li nga def sa waaw bo boo yeexee sax ñu tak la faf wa ba baxna man dal légui nak dama la wara a waxoon la bo dem rek waxtan ibukan parce que sama dom la sama nawle la bëgguma ag ak mom fima bëggul ag ak mom jaay na tay nak daf ma won ni màgg na sol na sama dal mu jot ko daf may jaay doole len nak na loolu dina ko xamal su fekente ni ki joxuma cëru baay naa ko porté naa ko yóbbu coon du ngeen fa bala mag mo moom fa nag nga wax ak mom man la du ngeen fa ko mom waye nak ibu dafa lay won ni la yaay mag la yaayam day mag te amna yeen yo yoo doko mu dul bay nga diko yaayam ci kanamam waxtaan ibu sobe yalla kan nga dem yow man tay la wara dem ngon kon yow bo fi du ko ah maa li ma telephone la wax la ko xana yow legi yow nak da nga nax yow mi yaa naax naaxuma benn yoon léegi maa dem léegi nag ah, def lo yegul dana wut nek dekk ci feeñu nag nee na moo ko doon fay te man yàlla xam na ni ba ma ko jëlee ba léegi ni maa koy fay ak sama xaalis du ma jël jabar dëkkul ko fen mu koy fayal boppam kon mu yàpp ma wax ne nee nag bu mu fa nekkee ba léegi moom moo koy fay moo tax mu génn samay bagage léegi nag maa ngi wut nag dëkk ci kër gi moom si fi li ngay wutee nekk dëkk ca Malte nga ñëw ci kër gi man damay tey laay dem ci dama ni fii ay minuit lay mënu maa nekk fii mënuma nekk fii comme da nga damay mbal kaw mbal suuf damaa bëgg wéet ak sama nekk bu lekk jotee naa ñëw fi nekk fi ci kër xam naa ne man fii ne du ma dem ca Binta Ndiaye sax di wax ak moom ndax maa ngi ci yoon waaye su ma ñëwee dinaa fa dem du ma yàgg lebal ma cinq mille waaye Malick nag baal lépp xaalis fu la fekk nga ne lebal ma lebal ma dama dama yorul mo ne génnee gu ma xaalis mais doo yàgg du yàgg insha allah weer rek lay am d'accord ok koo xam ni kii toujours histoire rek yow sa jabar ji mu di la muñal guddi muñal bëccëg rek nga mel ne teg ko fu kenn xam ah waaye Malick jaaxal nga ma waay. mbokk ñaari koy dox de. dëgg la. te bés bu yàlla sàkk ma sol sama daal yu foo nekk naa a fekk loo nekk naa ko xam. waaw loolu wér na waaye nag ñaar bu ñuy ànd dafa am kuy tànn nag Njaay. de de nag loolu xewi na. ah yaa ma bàyyi soxla doxi soxla. waaw loolu mu li ma fi mooy. néeg laa bëgg. néeg. waaw. am sa kër. dañ maa génne. génne. Binta Njaay génne ak papaam. Ibou Kan taxaw nag. dima ma jaay dool di ni góor lañ def may duma biig laa ñëw ci guddi yaa ma fëgg ubi, mun duma ubi mom bi jaay ma fogg fogg mu ndum ubbi papam genn mu ubbi ma ma xëy di laaj sama ndek mu di ma saga bi jaay lol la def jël sama bagage tani ci biti bagage yaa ma jël dénkaane legi nak may na ñew sedd ndax nek amna fi nga dekk wala dit malik malik nit ki soko beugé seedal ko jukkoom soo ko bañee nga seedal ko jukkoom yow réeré woo kat ni Binta Njaay bañ la koy may man mii si ñi ko ñaan laa bokk. loolu dëgg bon nag te Binta nga baal ma sax jabaru jaambur kenn du ko gërëmal kenn du ko gërëm ku waaye Binta Njaay wóor na ba jigéen ñu bari moo leen li ma lay xamal mooy Ibou moom mu ngay waxit Ibou gétteem wóor yàlla ñu ñu doon ñu suñu tudd ci laa bokk bon nag li ma lay xamal mooy yow yaay ànd ak dal te nag yow. boo génnee yow sa na nga fa am te dàqali ko gu leen. waaw dama ni nee na néeg kër gi moo fa doon fay luyaas ba mu fa dëkkee ba léegi moo koy fay ni ma doy na sëg jël sama place sànni ko du ma fële du ma fay rek jigéen la may wax papaam di ma saaga. parent ci boobu waaw man nag dama ni jabar dox sama diggante ak yàlla jabar ju dox sama diggante yàlla ma bàyyi la yàlla xam nga lu ma fi indi ñëw pour nga di ma xaale wala nga di ma firi sama jabar ju baax ak su baaxul it maa la ko gën xam maay fanaan ak moom. Ah, maay yend ak moom. sa jabar nga mën a xam waaye sama jabar nu mu mel xamu lu ma légal bu fekkee fii am na néeg nga ne ma am na néeg la man nag fi mu ne kër gi tànneewul si guddi bu guddi laa fi ñëw léegi daal li may def ko comme borom kër gaa ngi fi ma woo ko laaj ko très bien ba xam bu fekkee am na néeg léegi mu wax loolu rek la waaye balde balde balde laa ilaaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kadi accu kamen foofa baaba seena eh? kabiran yow xam nga lu ma lay xamal dama bëgg nga wax wolof li nga wax man dégguma ci dara. Eh, dara laa ci déggu. Eh, yow yow ma yow yow da nga yaakaar yow yow lan la nga. mooy ah? mooy borom man. Eh, yéen ñaari laa wax ne yow ñooñu yëpp laa wax ah. nga yow lan la nga. yow nga nga nga nga ma nekk yow nga nekk simple locataire ma wax nga wax ah foo foo foo yaakaar ci loolu du guddi du bëccëg ci fajari sax sama jëkkër mu ngi nelaw ci biir yéen yéen yéen ngi toog yéen ñaari. ngeen nekk lébu lébu lébu lébu lébu bisimilah rahmaani xam nga eh! maa ngi tudd rek xam nga lu ma lay laaj. dama lay laaj xanaa locataire moom du nit. kaw kaw maa min de. xam nga lu ma lay xamal droit bi ngeen ci kër gi moom loolu am sunu xaalis la ñuy fay te xanaa yow mun nga yëpp ñi nekk ci dëkk ci kaw musique guddi musique timis musique takkusaan kenn du fi nelaw ñii dëkk si kër gi yëpp di liggéey ñëpp dañuy bind ndax ndax guddee tëdd man awma rajo awma eh koto on doli kadi oh on on oh, oh, ni lan koto mata sama va man man ma ko jende non njay to to merci ça va to lan lan lo hew xam nga lu may xamal balé nit boko yoré té and ak mom dang ko yar sa soxna yarlo mais lu mo ayu wa mais ali mo ayu wa nun nu yor sunu xaalis di fay yor sunu kër di fay mu ñëw ni simple locataire nga sama gan salaamaaleykum maaleykum demu dama bëgg nekk xaaral ma woo la borom kër gi mu ñëw attaque bare wax taxaanu la yëpp ñu nekk si kaw guddeeg bëccëg ñii bi si si kenn wax la dama leen xoolal bu leen nu fontoo dañu yor suñu xaaj di fay. mais fii këram la. ah këram la bu fii fii mu ne. Euh, loolu yëpp ma ko ma ne xoolal mooy ne eh xoolal. non may ma rek may ma ko sax lu ngeen bëgg wax ngeen ma ko. yéen da dagg sama nelew sax maa ngi woon nelew sax ak seen coow bi. loolu loolu li nga wax ne bu ko waxoon coow du am kii sama xarit la waaw ñëw na ci man bu mu ñëwee neen dafa soxla néegu lu yaas waaw ma ne man day wóoruma ba xam am na néegam déet waaye xaaral ma wala borom kër gi loolu da la ñu wax mu ñëw attaqué fi lu nekk na waaw waaw am naa fi néeg waaw non ma bàyyi bàyyi moo fi non Ndiaye waaw taxaw rek kii kii ma bu ma mënu ma di ko moom waaw euh, am problème moom si moom moom waaye jëkkëram déglu ko moom am na jabar déedéet amul jabar. man duma lu eh, kii ku am jabar la. waaw loolu loolu moom fekk nga ma wax ko ko pare. voilà moom xam na xam na ko. weer bi eh, kii néeg bi ñaari junni. ñaari junni. waaw Ndiaye dégg ko nee ñaari junni lay lay néeg. ndox ak courant ci la bokk. déedéet. bokku kese. nga fay ndox fay fay euh, fay courant. yaa fayal sa bopp ndox ak courant. waaw léegi nag. waa léegi bu baax léegi règlement yi léegi nga wax règlement. léegi waaw yéen xam nga yéen xam nga sama yéen xam nga sama affaire. waaw du man nit xam nga lakkat amul caaxaan te xam nga xam nga loolu baax. te yow xam nga man man aw ma caaxaan damaa bëgg ñetti weer la laaj. avance avance. te weer bu nekk bu deewee le cinq nga fay ma sama xaalis boo ko mu ne ma jox la caabi te yow laa jox caabi la yow yaa garanti bi boo ko loolu mooy sama principe. léegi nag léegi léegi moom kay léegi dégg nga li ma. mënuma la avance ñetti weer ñaari weer la am. ñaari weer ñetti weer yëpp benn ke bëgg na lu ke bëgg na dekk wa mais xoolal ñaari weer bal de bu fekkee da ngay luy ñaari weer ñetti weer yëpp benn la mënu eh, ma la fay ñetti weer man aw ma ko ñaari weer la muy ñeenti ñaari weer la balaa jeex ma jël sa xaalis ah yow laa seet de ma yow laa xam de wa mais moom moo yor xaalis liggéey xaalisam dina ko man waaw loolu ma wax ma léegi léegi yow xoolal wala xoolal sa xaalis gi nii ko ñaari weer deux mois ngi noonu wala léegi yow yaa garanti bi oh. bu dellu caabi amee yow yaa moo la te yow laa jox sama caabi sama caabi nekk yow yàlla ko jox. mais wax ko itam ni ko ndaw cité bu am ak moom affaire. jabaram la bu mu léegi yow sa jabar ndax dañuy xaalis di fay. du nag sa ñëw rek mën la problème loolu nag da war a wax ak moom nag sérieusement parce que genn wàll gépp fii kër kenn nangootu fi dëkk ndax sa jabar na wax ak moom nag sérieusement. moom amul jabar. non moom amul jabar wax nañu loolu kay jeex nañu léegi kay. léegi jeex nañu fu ma teg mu teg foofu sama jabar waa léegi jéem sama jabar ak man ñoo bokk kër gi. waa léegi demal ko expliquer dama jël sama bagage yi. waa baax na man kay France laay def. waaw baax na man maa ngi toltolaan boobu ba bàyyi foo solu nii jëm. ah man kat Binto yàlla defal nañu sutura. dégg naa démb ñu ne tàmbali nañu joxe suñu pension yi. ah waaw commencé nañu ko fay. dëgg la man dama bëggoon nag ñëw seeti ma ne woon nag boo amee ñeen fukk nga abal ma ma paas ci ma ma ñëw pour ñu réglé xaalis xaalisu borom kër gi parce que dégg naa démb la koy laaj. maa ngi lay dégg sax mu naan dana ñëw tey. yoroon naa fi ñeent fukk fu ma ko fasati sax. seetal ma bala ma woon ah, naa la mu naan dana fi ñëw. waaw loolu la waxoon de am kon ma dem ñëw bokk. wala waaw demal te ñëw. jërëjëf waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaay na nga def njaay ah, wa yaay dinaa la ni ay sama dal yi lay defal rek sa dal yi weex yi anam ah ibu dal yi mo ñëk dag di dama la ko wul rek waa hmm. lu xewati baa jam jam rek yaay dal so bu leg ma ci dëkk bi jënt rek ba yalla mi dara teewul sax sotal na mbir mi amna liggey liggey ibu sa njàng mi nga def ko nan yaay jang jang yaay ba kañ ya xana gisoo li ngay dacc biir kër gi ak misère bi la sama papa teg fii ci biir kër gi te yaay da war a xam ne man tamit dootuma xale mag laa fi mu ne nii. Ibu li nga wax dëgg la waaye dangay xam leen naqar bi nga xam ne maa ngi koy def ci kër gi yàlla moom moo ko teg yàlla moo ko teg nag dina ko teggee ak nu mu ko mën a teggee. waaye yaay loolu dëgg la waaye mu ñor rek loo gis day jeex looloo tax ma fas yéene fas jom liggéey ngir dimbali la ci biir kër gi yaay. te umpale woo sama la taxaw ne dogoona na man àddina ak àllaaxira waaye doo ko topp ndax sa waajur la. loolu yëpp dëgg la yaay li ma bëgg mooy nga ñaanal ma rek ndax bëgg naa bés bu ma yàlla dimbalee ma takk jabar indi ko ci kër gi mu lay dimbali. Ibu maa ngi lay ñaanal fu ma toll saa yu ma jullee maa ngi lay ñaanal dama lay xamal lenn rek bunt boo fëgg rek dina ubbeeku ndax mu naa lu doy noonu ci sa kër baay bi. ñaanal bu baax rek maa ngi ñëw dem fële service su bële dafa am benn dossier bi ma fa bëgg a déposé ñaanal bu baax. baax na demal maa ngi dem. yàlla na yàlla defar sa yoon. wuu tey guddee na trop trop trop trop trop. foo tëdd. waaw nga de. ah sonn moom kañ daan guddee nii. moom fële yëpp nag day guddee nag. Ah. surtout parce que Demba Demba tey yëpp. lay guddee. guddee na de mais dafa waxoon nag mu ne lu mu guddee guddee. nga mm. xaar ko fii. waaw day ñëw. waaw maa ngi xaar ndey jóg man dama bëggoon dama am waxtaan tuuti li ma waxtaan ak yow. mbaa jàmm. jàmm kese jàmm salaam rek. ah xam nga ni rek waxtaan diggante jigéen ak góor. yow laay deglu, te man bi nga commencé ñëw fii ba léegi dama la nopp ba dog <laughs> même bu ma tëddee sax yow rek la xalaat mënu ma nelaw tànku. nga ne. te te loolu sax dinaa la may xaalis loo ma laaj te jaral nga ma lu ne jaral ma jaar sax sama kër ma jox la ko. pare nga ndax. doy na. waaw waaw wax na nga yow tamit. xam nga lu ma lay yëgal sa tuutaay ngay niroog janax sa dar sa yëpp a tuut boo ànd tuuti yow na la woon ni Malick bu ñëwee li nga wax dinaa ko wax yow Balde lu ma lay doyee. waaw mais loolu. ah Balde mbëggeel dafa laaj loolu. yow yow koy bëgganteeg yow. tuutaay yow loolu loolu mbëggeel jógal jógal ma wax mu naa waaw mais xoolal Balde jógal waaw waxal ndànk rek waxal ndànk sama. Bella mooy yéen. ah ci wàllu goxal d'accord. ah laa ilaaha illa mooy yow ay man maa waaru di gis nga ko de mel ni suuri ma yàq mu naa man mbëggeel ki lan laa ko war a yow. maa ko def sax man mi man mi tojul boppam mu nekk fi naan dama la nopp. asalaamaaleykum man Balde mii di. Jëwa Juba. <laughs> jaajaata yaa mel ni. ah yow xaw xaw naa mer de. dama lay tàggee moom. ah yow da nga mel ni tey da nga maa ngi ci roos. xam nga ne toujours man ni laay mel. wa du ma gan si yow caabi ji Balde. Balde ma ko jox. yee tey rab yu baax yi de alhamdulilah. sa Balde mii lu ne la de. waa nijaay loolu dafa guddee nii chéri koko lijjanti rek nag lijjanti ah yow tamit ah. ah waaye booy loo jëlee lijjanti rek lijjanti bëccëg xam nga ne guddi gi moom yàggul dara man nag lépp lu may defit ci yoon laa ko teg xam naa loolu lu mu guddee sama xel ci yow nekk. ma xam loolu. na nga naa def nag ana ñëpp ngi fi. ana seen yaay mbaa dara jotu mi ngi fi jàmm rek. bu tax gisuma la dem. démb damaa amoon xew nag moom ma teree ñëw. waa na nijaay. chéri ko ko man maa ngi naan nijaay sax di gàng rek. Eh. pour nga doon sama nijaay. xam nga lu ma la yëgal na fi mu nekk nii. luy jot jot jot na ginnaaw de. seytaane waxul dëgg nag waaye yàq nam xel. yoo xam nga Malick ba sama jëkkër dee. bàyyi ma xale bu tuuti ba léegi ku am ñaari at boobu ba léegi sama nijaay may ma jàmm yoo xam nga ne umpul la na kër gi ma dëkk nii bu nawetee day taaj hmm. looloo tax sama nijaay na ma damay jël kër gi jaay ko jënd la fu baax li nga ñëw nag di ma bëgg nag ma am si yow wóolute nga ne di ma takk may damay ma yëkki këyitu kër gi jox la ko boobu ba léegi nga ne bu weer dee yu ma takkal bu weer dee ma takk la ba léegi dara amu si koñ bi yëpp nag seedal nañ ma ni ndey jëb kayitu këram da ko def fara mu jaay ko lekk xaalis bi su suma sama nijaay may ma jàmm te man bëgg ma mu histoire yow si dara dara xam nga sama nijaay neexul dara léegi nag damaa bëggoon bu fekkee jaay nga kër gi nga jox ma xaalis bi boo ko jaayee nga jox ma kayitu kër gi ndax xam nga sama nijaay. dégg dégg naa li wax kon loolu moo la indi tey waaye man indiwuma la. bañ a andi. sa kër goo ma doon jaayloo daal jaragul moo la indi tey ci man waaye man taxuma laa jóg. tax nga maa jóg kay noonu dinaa fi ñëw te duma kër. waa dégg naa li nga wax. seen yaay neexul deret waaw waaye maa ko gën a naqari deret te xam nga loolu man xamuma ci caaxaan kër gi bu neexoon a jaay du ngeen ma ko jaayloo kon yéen a ko jaayal seen bopp bu neexoon a du ngeen ma ko jaayloo kon yéen a ko jaayloo seen bopp waaw dangeen ma ko jaayloo jaragul nag te mënuma poñu nit ñi a ma forcé di leen ko jaay damay naxanteeg ñoom don bu ñu jëndu ko kër gi fu mu placé baaxul place ndox la loolu waral ngeen di ko jaay ku koy jëndi dama lay ba nga gisal ko sa bopp ñett nit waxaal nañ ko kenn ku nekk da ngaa xaaj am na ko xam demoon na ba fay ma waaye da ko xaaj sax ci guddi gi waaw boo koy jaay jarul waaw nga delloo ba kayit gi ma delloo ko sama nijaay waaw léegi nag am na koy waxaale ah am na koy waxaale gannaaw suba dina ñëw seet si fekkee jar na bu jarul ma delloo seen kayitu man loolu laa bëgg bu jaree jox ma bu jarul jox ma waaw léegi nag affaire ngay wax maa loon dama lay takk na sama waxi démb mooy sama waxu tey su neex yàlla bu weeru dee balaa la cinq bu neex yàlla lépp loo xam ne lii war na sama diggante naa la ko may takk la nga ngay sama jabar mënu ma ko passé loolu la man de si loolu laa basé moo tax bu nga waxoon naa la loo bëggati nooy def da ñibbi ci guddi gi heure bi dangaa bàyyi ma dem rek. da nga naan fanaan loo loo jëlee. Malick bii. ah Malick ñu lan. Malick ku la bàyyi ma fanaan nii rek tey. da ngay fanaan de. maa bëgg ak yow doo nit. waaw kon ma far fanaan boog. dem ah. ma fanaan benn boog. demal demal jënd dibi te yëpp. tey Malick. ni may def. jëndal 5000. lu sedd nag. lu la neex jëndal na ñaari junni jar xanaa bu jëree ba si. ah dëgg yàlla. yow sa ndekki rek junni la. man ndekki junni. kon ma dem te ñëw na la jaay ay côtelette. waaw waaw. alhamdulilah. yéen waaw Assou Ndiaye. Assou Ndiaye bii ba tey maa ngi lay dégg waxuloo ma dara sama xaalis ma ci bàyyoon fay nañ la wala fay ñu la. yaay na xam nga sa xaalis bi ñu ma ko joxoon ba léegi yónnee naa jox naa la sa xaalis bi nga ñëwee mais kenn jox ma fi dër damaa jaabante jaabante bay bëgg dee amatuma sax tësan tànk yi ma doxee surtout ma tàndee jub saa yi ma fa demee mu naa ma yow moom yaa sa yaayam yam ngeen a bëgg xaalis rek nii te moom xamul ni ñëpp bëgg xaalis ñetti at yàlla moo ci sama xaalis bi man damay liggéey liggéeyoon pour ko sànni ci àll bi bu boo leen waxoon la ma la waxoon kon nu fay ma waaye jugal léegi nga demal ma ci fi ñëw neen sama yaay nee na ñëw na biir dafay dafa soxla xaalis damay génn oto stop la nag demal ci li ma yontu ñëw léegi yaay daal xam nga ma ak stop nag man la wax loo benn dëgg ci stop nga dëgg boo bàyyil stop nag danga ñàkk sa bakkan wala ñu sànk la lu leer laa la wax yaay daal gis nga as njaay mii saa yoo ko yónnee mu jaar local luy local xanaa kër ñu Pape Cissé fii la dëkk ci koñ bi luyee benn néegam foofu la góor ñi jigéen ñëpp di rajo la sa ngoon di naan attaay te mi ngi ñu nag Pape Cissé gaay nag da koy doxaan du may laaj ba pare dëgg la Fatou du ma moroomam tàmm na nag moom comme nii rek saa yoo demee bu ñëwee mu nettali la mais la def du la ko wax waaw demal fi ma la yoon te ñëw demal ba ñu fekk ni ci kër gi ma lijjanti say affaire yi weddi de waaye yow lu la xam loolu local ak Pape Cissé ak Demba Ndiaye. gis nga yaay barki ci guddi bi ma yónnee boutique ba man mii maa leen romb moo Pape Cissé ñu naan dañuy dem restaurant reeri yéen ñëpp a yem waaye dinaa lijjal seen mbir yow bu seen nijaay di yeewoo yow de dina wax ci yéen ndax man sonal ngeen ma trop di daw guddi daw bëccëg ndax yéen rek tey may leen ma jàmm may leen ma salaam di ma wax yu kenn xamul ay local yu kenn xamul ci biir ba sa ba sa nijaay jóg ngeen day yéen a yem sama man naa liggéey man kenn di kenn di ko di ko dundee ku dul man. sama njaboot. maaleykum salaam waaw Aya Ndeye. ay waay Gumel. Ndeye na nga def. ay Gumel na moon naa. Ndeye maa la raw. Gumel njaa ngi nii. waaye Ndeye li ma la woo yëpp yow mënuloo fexe sax ba woo ma. ay Gumel. Gumel bul wax loolu. gis nga keroog laata seeg baay Fall mu ne ma yàgg moom bokkoon nekk Milan. waaw. waaye yow Gumel na nga def. jëbët yi ma mujj yor bonte xale sa moom laa ko jox. ay Gumel na moon naa. waaw Ndeye yaa mel gis nga ma ay bu ma tooñ nag. waaye ci eh yow nag gis nga yow daal yow gis nga yow doo changé mukk nag demalaat daal ñu xaw man moo lu ma changé monsieur eh, waxuma loolu waaye naka affaire nag ça va maaleykum salaam Adja seen la Ndiaye seen sama càmm euh, bi la seen na nga ku mel na nga def maa ngi ni Ndiaye allahu def alhamdulilah seen mooy sama xarit bi Ndeye Seen moom laa liir toujours ma la koy wax. ndeysaan fu mu dëkk xanaa dëkkul ci koñ bi. ci dëkk Ndakaaru gi newu ci xanaa. Ndeye ngi fii ci sunu ginnaaw moom jëkkër ji gaañu woon am na léegi ñetti at. naka la ndey seen dëkk ci koñ bi te ki ku mel nii te man man moo ko xam. yaa dul toog rek yoo xam ne yow doo toog yaa ngi ci diaspora bi. ana waa kër gi yëpp. waa ndey lu bees. gis nga ko nii de. ah ndey daal ne bëggoon naa su ma ñëwee nga ne ma àllaaji baa ngi nii xam nga yow tam ñu ma yàkkamti naa def ndànk rek moo loolu du yàkkamti yow tam de ñett at dafa doyul waaye nag bi góor gi gaañoog léegi yàggul te xam nga dama koy jooy ba léegi man la jooyi nag say rangooñ nag war naa fer nag wàccal na la fi looy lu fetal say rangooñ wutal jëkkër nag te sëy mooy dëgg <laughs> taaru jigéen sëy xuma loolu marchandise yooyu man la yow nag ndey mm. say marchandise ñëw bu ñoon xam nga tey ma woo la moo tax waxuma la gis nga ma yii ci may jara laa ko jële ndax sa xam nga sa marché conteneur lay ñëwee teg may jara te may jara ñaan tey ko te may gën a ñaan xamuloo ko. waaw waaw waaw mhm. moom ci moom laa jëlee yëpp daal ma ko sama sama xarit yi nga xam ne ñoom bu ñëwee dama la jox marché ñu jaay en gros. Ah. su fekkee soxla nga itam. ah waaw ma jël ci. <laughs> xool. yii ay jootul la. ay jootul simis àllaaji la. yii rob xale la yii ay rob xale la. xam nga ni ma la ko daan joxe waaw yi ay simta yi ay simta àllaa ji la waaw ay dara de la yi ay dara xale la yi daan nga ko jot loo ci soxla rek xam nga yooyu ay kii la yi ay dara de xale la waaw yooyu bëgg naa ci deux douzaines deux douzaines waaw mhm. lu ragal mënoo jël mënoo jël ah yaakaar nga dina kii. ah yow tam. waaye ndey xam nga xam nga xam nga sama bi ci tàngaay bi. ensemble xale yi moom dégg ngeen. donc su kii bi baax na ci tàngaay yi douzaine la. ko ah, xanaa lépp luy jël kon. yooyu survêtement de koy won rek mu xool lu mu ci soxla rek. mu jël xam nga yow yow xamoon ndey nag. maa ngi ñaata la. yoo xam nga ni mu ni mu daan demee rek yow tam day hmm. ah ay gumel yow nag mën nga sax jour doo wax prix yow tam lu ñu nekk nekk ay doomu ne tam lépp des fois dama wax prix nag waaye nday xam nga yaay sama waay te avant tout danga ma daan dimbale ba dara dul dara kon nag mënuma mënuma dem te ba yàlla dimbale may dem waaye di ñëw di la wax di la yaay seet lu la nga fay soo fayee baax na soo fayul baax na waay yow daal man jaaxal nga ma a demee de ndey waaw xam naa ne léegi kon dinaa xool daal xam naa dinaa ko bu ma lay jox xam naa bu la joxee moom doo mer. Ah, man nag man xam naa loolu. te ma la jox 300 boobu bii mi ngi ci yoon wi yëpp. ma jox la 300 mille. ndey noo def rek baax na du man dama la wax de loo joxe rek noonu la. bijou bi ñu am na yu mu lay jàppal. Hmm. yoo xam ne surtout laaj ci def. waaw ay bijou surtout. waaw mi ngi ci yoon wi dafa ñëwagul te bëgguma sama. bëgg naa daal ay boucle d'oreille yu mag. yëpp ñëw na ak chaîne hmm. ak ñaari lam. am na yoo xam ne en tout cas daal valeur 800000 daal. waaw ah, baax na waaw. xam nga Malick nga waxtaan. moom dafa noppi rek lan la. damay xaar nga dem. <laughs> kon boog maa ngi ñëw dem xam naa sama toogaay fi neexu. ah loolu lu yoon moom teewoo ko ci yoon. ah man bii. kon da ngay bàyyi après woon da ngay bàyyi xale yi indil la ko. waaw xaar ma yóbbu tuuti rek. waaw da am loo jël bàyyi xale yi yóbbu ba xale yi dana la indil ci des. da nga jël yóbbu li après xale yi dana la ci des. merci ah, Aliou monsieur Ndiaye. Sène. mu dëkk. man naa ñu xam naa ci gàcceel ma ci gàcceel waaye teg naa ci dimbali ma fu a waxtaan waaye ngay sévère ne wax ma ma gis ma gis ku ma a gis teg ko bët mosuma ko teg bu demee man waa di dimbali ma dimbaleeti ma bu ma teg gàcce laa wax. lu ma dimbalee ci man sama xarit dinaa ci dugal nga dama jox gàcce Malick Ndiaye Tak jabar ak fase ñent jabar ma dila dugal sama ndey seen muy juro mënta ne ndey seen dafa 10 atun loko jëkkal ji muy ji mu amoon xaj lako fi bayil du ma la ci dugal dama ni kan atun kan yalla yàlla attan yëpp wat bo fexé ba nek sama jabar dara ji rasulaay dinaa ko téye fukki loko te duma ko ci mukk dimbali lima way bàyyi ma rek ma dem fa sambo demal fa sa bop kon da nga demal sa bop du yaa demal sa bopp wax ma fu mu dëkk muy ci gannaaw imul bi ci gannaaw moko mom gumel wuy ma nak sama xarit nga fexeel ba ma jot ci dara dinaa fa dem lu ma wax dina wax la nga demal ma fa. neel waaw. waaw. léegi ma sëñ ma dem banque di ñëw. li may waxate ko yow di di di. paas laay jëli. moom bëgg a seet ngoro naa ma junni. waaw paas taxi ma ma dimbali ma ci jox la laa dëkk. téere ni CFA nga yor. CFA bi de bu ma la toppee mu jeex. maa dem te ñëw fa laay oui yow jox ma njëganaay foofu. waaw yaay foo demoon nii dama génnoon sànq. yu mbaameen géej indi na cere ji. man kay maa ngi ko jël maa ci nga jox tëbbe tànn gu mel génnal yàpp foofu. yow tata gu dafa ñëw. ñëw na bëkki dem. tey kon baa jëlal nga ma daal li ma la ñaanoon. jëluma daal nag de. bi paa yi fi góor rek la indi lii daal la Aliou moom moom moom lii li ci des dama ko jaay en gros. waaye yaay boo dee jaay en tamit doo ñu ci jox. oho oh, leena dinaa la jox mais da ngay xaar beneen yoon bii pa yi fi boobu màggu te il faut ma benn. bu ci am dinaa la jox nga jënd. yow seer nga rek foo mu sa gisee lii ji jigéen di ko sol. voilà eh, ah, wax de. commencé ti benn wax. dafa mën a wujjee jox xaalis nga jënd li ngay jënd. yow loo bëggee dara wax ma bul ma ni benn problème. yow looy laaj rek ànd ceeg tàng xol. ni nga mel xol. waaye nga ah, mel ñaaw na de suñ jëndalee rek sa xol bi da ciy bon. Eh, lan la yow na ma la wax sa bopp aji saw. sama yaay li mu wax sama xol sedd na dina ma jox kooku amul benn problème yaay. bàyyi ko rek moom muy wax waxa ko ji day wax rek. salaamaaleykum maaleykum salaam maaleykum salaam.

Je ne rek li nga ah. Euh. ak sa sourire bu ah bon de temps en temps il passe à la maison. ça va sinon. ça va bien. ça va. Mhm. Euh, activité ah, ça va très bien. car on ne ngi gis en ville.

luma fi indi dal bo bo léegi nak nday am lay wax deug sama bir xol la sax ma bëggoon la ko wax à chaque fois xawma numa la koy waxee tey nak ma décider ne na fi jaar nuy la wax la ko te muy lu dëggu ci man wa lo lan la lay xam nga gis dara bëgg ko yàlla ko def te yow wax dëgg yàlla bi ma la gisee boobu ba léegi dama la bëgg mhm. su ma sañoon daal lay nga nekk sama jabar jabar moom laa bëgg de xam nga fu mu ne nii mag nga mag laa ñu xale loolu moom dëgg la waaw te it dégg naa sa wax waaye loppi da ngay xam kan ni sama jëkkër bi mu gaañoog léegi yàggul ya, te xale yi misuguñ seen baay

après mën na ñëwaat quoi ça dépend xam ngaa dina moom. asalaamaaleykum moom dafa nekk loolu maaleykum salaam. Ah. seen. Ah, bonjour ah na sant Loppi. Loppi na nga def. ça va bàyyi woo dara. Ndiaye Ndiaye seen. Ndiaye bismillahi <coughs> rahmaani rahim. Ndiaye seen na def. maa ngi nuyu Ndiaye. mbaa yëgoo dara. déedéet. yaa ngi sant yàlla bu baax. ku yaa ngi sant bu baax. waaw li lan la ci parfum. yàlla na yàlla dolli ca temps. li lan la ci parfum. déet bu ma bu ma bu ma ñaawal nag parfum kay fii la fekk baax. <laughs> maa ngi nuyu yow tamit. une grande dame comme toi hein, nekk ci dëkk bi ñëpp xam la. ah am na ñoo xam ne dugg sa kër danga leen di sëgg quand même day <laughs> mais ñëw rek fekk fi ay nit bon dégg nga salam salaamaaleykum maaleykum salam commencé wax ju bari ak yoyu mais quand même daa da. <laughs> mais monsieur Lopé. oui fi du sa kër fi sama kër la c'est ma maison. waaw d'accord Ndeye. c'est bien vrai. ku ma neex la fi entrer. c'est bien vrai mais dama la xam lolu tax. su loolu loolu du ma am sañ-sañ wax la loolu ah mais yow monsieur xanaa yow jàngoo école <laughs> amoo correction jàngalu la luy correction. luy loolu ah. lii loolu mooy. xamoo boo ñëwee kër jàmm xamoo noo war a toogee. xanaa noo war a waxee. xanaa boo ma fekkee nit. xanaa correction ñu seen ko sama koy wax. ah. Nous hein? sol costume. Ah. waaw sol nañu costume moo tax ñu am correction. Ça <laughs> va, ji mais ku sam xorom non mais c'est pas ça Bon, il y a une waxtaan mais la moindre chose choses ah, non ça va léegi c'est pas comme ça mais c'est normal Hein? on sélectionne les gens d'ailleurs, quand même. Hein? Sélection. Ah, équipe nationale. On va, au plaisir d'ailleurs. Hein? On se verra le week-end. Merci. Ça va du bon. Mon sens contraire de là. Oui. Voilà. <laughs> Maa ngi nii rek. les même moom sax bu fekkee ne dana ci def laa seet si ah euh, bu la joxee sa cër dëgg-dëgg gan gu fi ñëw daf ko war a fonk sax moom. ah c'est la moindre des choses. boo amee bu ma ko fekkee muy gan gan ñëw di la nuyu si bu la fonkee dafa war a fonk gan gi. mooy xam nga ni kii seen eh, xel yemul wàcce na boppam nag wàcce na boppam moom yaakaar naa ne lu mu fi doon wut ñàkk na na yow maa ngi xanaa yi ci la yu gumel joxoon la. waaw yu indi woon ci la. léegi nag. Mhm. du ma leen amoo xaas am nga xaas tubaarkàlla yàlla na ko yàlla yokk. da ngay fexe nag bu gumel delloo te xam na yoon mu won la yoon ngeen ànd ngay jënd di ñëw di jaay toogaay amatul ñëpp ay liggéey fi mu nekk nii <laughs> maa ngi nii rek man nag keroog xam naa ni danga nga ne ku ñàkk aajo la hmm. ba ma fekkee kër gumel tiitaange ma jàppoon ah. gis lu ma mosula gis mosuma xam ne mukk jigéen ju mel ni yow mas am na ci àddina ba ma la gisee dama tiit du eh. caaxaan jayu ma la eh, dama la wax benn affaire gis nga nit boo koy wax wax ko lu nekk ci moom loo xam ne bu seetee boppam gis ko ci moom seet sa bopp ndax li wax dëgg loolu de jayuma la lu yàlla def la dañ naan kaar kay te naan yàlla yàlla xeeb dool hmm. ñu dëgg waaye na jigéen li koy mot dëgg dëgg li koy mottel ba mu mot dëgg dëgg mu mat nekk jigéen mooy borom kër te gumel nee na ma fa tubaarkàlla sa borom kër dafa génn àdduna boobaak léegi yaa ngi toog mat na ñaari te amoo borom kër waaw may toog naa lu mat ñetti at awma soxna gannaaw na gumel sa genn wàll gumel di sama ñu bokk ndey yaakaar naa ni euh, euh, euh, sotti jag def ci la ma ni ko nag naa ko seeti bu ma joxee kàddoo ma takk ko muy sama jabar passé naa nag fu muy bëgg maa gis nit bëgg ko man passé naa fu muy bëgg maa gis nit bëgg ko maa la gis bëgg la te nag li may gis jigéen ba bëgg ko jigéen ñëpp amuñu ko jigéen joo gis di nga toog fukki at ak juróom ba ñaar fukk hmm. waaw loolu dong ma fi sa kàddu lay déglu li nga wax ah mag laa man léegi jori jori rek li nga wax dégg dëgg la tey dégg naa ko ndax jiggi taayu jigéen mooy sëy waaye li ma la bëgg a xamal mooy sama jëkkër bi mu gaañoo léegi dafa yàggul te xale yi miisaguñ seen baay te man nii seen ndey damay jooy seen baay ba léegi fi ñu toll nii sëy nekkagul sama xel ma bëgg nag nga jéggal ma rek. loolu nga wax dëgg la waaye xale yi miisaguñu seen baay xam nga lu tax miisaguñu. Hmm. lu tax miisagoo seen baay. Hmm. amagoo beneen jëkkër. Hmm. bu amee seen bu amee beneen jëkkër daal jox la ko ñetti fan nga miis ko di nga fàtte xale it bu bés bu amee borom kër ñetti fan ñu miis seen ndax wolof jaay na ne ku dul toxu doo xam fu dëkk na léegi nag dégg naa li nga wax maa ngi dem su ma demee dinaa waxtaan ak sama xel bàyyi gu ma la sama xel a ngi baax na Ndiaye seen. jërëjëf ba ma dellusiwaat bi salte salte man balaa maa dee rek. aji mbay ñu jël nit bu niin bi maaleykum salaam. ndaay tata gumeel ay tata nu mu mën naa la. toogal. maa ngi nii rek sama yaay mi ngi fi. si biir yow seetu leen ma. ay tata billaay. yaay. yaay booy. wuyul ay tata gumeel na mën naa la de. eh namu leen bu ngeen mën a mën seet si ma. billaay dimanche laa ne woon dama fay yéen si. maa ngi nii rek. ça va ça va nu mën naa la. maa la rëbb ça va bien. naka affaire yi. ça va alhamdulilah. ñam jaara nii rek. jaar ñoo nga fa. pourtant maa ngi egg si lii mi ngi may doog a seet si de. mi ah? a seet si ah, yaay ko def yar di jël sax. <laughs> kay jàmm naa ba sonn maa ngi nii rek maa machine nag maa jaar na daal. waaw li ci desoon joxe naa lépp xam nga dama ko joxe en gros rek laa mais man mi noonu laa def li ma yoroon. dama ko mujj joxe en gros waa jeex na. waa nag tey affaire marchandise indi wu ma. Hmm. affaire Malick ma indi. moo nee na ma sax jaar na fi. <laughs> waa jaar na fi kay. waa ndey nag dama bëgg nag ñu waxtaan nag. Hmm. ndey xam nga ni nag ba nga li nga toog yàgg na ñetti ati yàlla yàgg na te maari sama càmmil neew naa sax duma ci dugg ndax wax dëgg yàlla maal fas ne ñeenti jabar waaye waatal na ma ni changé na ba moo tax ma ñemee ñëw ci yow wax ak yow ma bëggoon nag ndey nga dugg sama càmmil duma la nax na am ñu nëbboo su fekkete ni chan amuloon benn changement bu mu defi duma ci dugg waaye wax na ma lu leer ba ma gëm loolu moo tax nag mu bëgg a waxtaan ak yow pour nga nangu daal ngeen sëy ndax say jaamu yàlla ya la bokk ah gumet yow de euh, xam nga ne fi mu toll nii sama xel wax dëgg yàlla nekkul woon di sëy ndax xale yi daal dama leen ñemantal waaye gu mel nu ma lay def gudd nga bu mënu ma laa tëb gàtt nga mënu ma laa duróom te it sama diggante yow yow xam nga ni dépassé nañ ay xarit. loolu dëgg la ay doomi ndey lañ. Mhm. ah. waaye ndey da ngay da daal sa xol rek ndax ndey itam nag toogaay bi rek da ngay toog ba kañ nag. sa jëkkër nelaw na dangaa war a sëy nag nday yow itam waaye doo toog rek foo nga sëy te Malick mën na la yor loolu de dëgg la moom te man mi duma ko seetaan tam xam ne sama nit nga ma waxee yow di nga nga di nga cëpp nag yow it waaye daal na la torop ndax man ku am diine rek laa soxla man la diine moom taxul ñuy wax moom Malick moom diine la am ba mu doy li ma ci doon tiit yëpp daal waxtaan ba lépp dañ na du ma la ko ndëm ndax bëgguma nga dugg sëy ba ca biir itam ni jigéen baa ma ci dugaloon lu leer laay waxanteeg yow leer na ma ni bu la takkee dina la yor dana mën a dana déggoo xale itam ndax moom xam nga ni moom farceur la moom. moom day bi mu fi ñëw toilette bi mu indi sax ak parfum bi. kooku moom du leen boole moom la de loolu xam naa moom loolu leen boole set fa set fa fa set yam la commencé moom. Ah. te xam naa di ngeen mën a def. kon de xanaa ñu def leen xam nga mag laa. fi mu toll nii am naa droit sax may sama bopp. Mhm. waaye comme que dama am ay kilifa. Mhm. léegi damay waxtaan ak sama yaay waxtaan ak sama nijaay. waaw. Ah. xam kan kamu mënu ma ñaan lu ma bañ loolu deug la ma def lool rek mënu mënu ma gàttal ko defee su sama yaay sama niyaay pare bu ñu yónnee ñu may leen jabar ah baax na kon maa ñëw def moo leen laaj waxtaan ak moom xam naa yow lii rek la fa indi woon affairement rek moo indi woon ma ñëwul kon mu ma yaay na ak su ngeen gëjee gisee ma gëj a wax ak yéen dama yaakaar ni léegi màgg ngeen dootu leen xaar kenn ku leen di yedd mbaa ñu leen duma du ngeen ay gone ay magu jëma ngeen war ngeen war a juba bokk ndey ak bàyyi war a nekk benn ngeen na ci kër gi nag di xiiroo ak a ŋaayoo ak xuloo te man bëgguma ci doon kenn seen xel nekk seen papa gannaaw seen papa nekk fu may seen bàyyi man te yéen kenn kuñ ci may jëkkër nga sëy du ngeen ko rek léegi nag ngeen bëgg nag ci kër gi war a san yaay nekk fi ngeen war ko wuutu lépp lu mu fa war a def ngeen di ko def bu tukkee xelam dal defu leen ko bu bu tukkee ngeen kenn dégg naa ni da ngeen di tëj kër gi sax di doxi yow fan la dégg naa da ngay dem local xaw ma kan mooy dem local yow wala moom. tonton kii mooy dem local moom mi. fu local nag yow yaa yaay dem local. moom nee na la daf maa gis mais moom nan la def ba gis ma xam nga moom feebar la yor parce que waxee sos lay def. moom fi muy dem du ma ko wax sama yaay. benn affaire laa leen di wax léegi laajutuma leen yow kii sa mag la jox ko cëru mag mu jox la cëru rakk mu yilif la te nga nangu ñu yilif la aussi est-ce que yaa dégg yéen nga def ko comme sa rakk di ko muñal ñu bokk ndeeg baay mag rek noonu la ñuy doxale waaye bu ngeen bokk ndeeg baay mel ni ay ay ay bëgg nag ay noonu du du sotti léegi nag jël naa sama décision. su ma seen yaay kalaamete gi dinaa ko digaal yéen kër gi ku génnati guddi fii guddi mbaa nga doxi timis fekkul ci kër gi dinaa dinaa ko digaal yow na mujj tey nag buñ ma kalaamete gi jeex na jóg leen ngeen dem seen yoon asalaamaaleykum ah <laughs> maaleykum salaam waaw sëñ bi Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye. Iliman Iliman Ndiaye bismillah toog leen toog leen waaye na ngeen ma baal àq de. baal leen ma àq nag bu bare bari bu bare bari. loolee amul àq. <laughs> yàlla moo ne. waaw jullit yëpp ay mbokk lañu. jërëjëf. rawatina bés bu rëy bii nga ñu yabaloon. <laughs> jërëjëf Iliman lii kat. waaw ci ponkub yàlla yi la bokk. wax nga dëgg. lii yàlla santaane. te la bokk. wax nga dëgg. gannaaw nag ba ñu jullee ci yonent bi. waaw. Ah, lañ doon ñaan de yàlla defal nañu ko. allahu akbar alhamdulilah. Ah, kon nag Ndiaye. Ah, waaw ndokkale. <laughs> ma jërëjëf ma doy ndokk sa wàll. alhamdulilah chef de quartier. jërëjëf waaw. daanaka imaam tënk na wax jëpp. waaw dëgg la jërëtul ma ciy sori. waaye dama ci sànni ñetti kàddu rek. ndax ñun amuñu lu may quartier bi. ak jàkka ji. te sëñ Ndiaye gis nañ ci li ngay def ci jàkka ji. ak quartier bi. waaw dëgg ku ko jàpp. Mm-hmm. quartier bi ak jàkka ji ñu jàpp la. ah la de waaye jàkka ji su wootee këyit rek la fay indi. dëgg la këyit rekk waaw te gis nga loolu ñu la doon dagaanal muy sëy bi. Mm-hmm. waaw yalla na ci yàlla def barke amiin ak mbooloo mu jullit nga muurloo ko amiin te am ci njaboot gu barkeel te am diine amiin amiin daanaka loolu la imam la quartier bi ni woon nañ nañ la ko yegg ñoo naroon a ñëwal seen ñëpp sax naroon nañu ñëw yàq jëpp naroon nañu ñëw waaye dafa fekk ne Ibra Mbow moo amee ndigg kañ la loolu fan yi gisoo ko ci jàkk ji euh, ñoo ñoo ñee dem nag ñu ne ak chef de quartier ñëw si à ndokkeel si waaw jërëjëf Iliman. Euh, yàlla na leen fay yi may leen fan wu gudd may leen fekkee tal bàyyi leen fi ba ngeen fekkee seen njëriñ njaboot lii nag lii la ilimaan li ilimaan lii lii wàllu ilimaan ci dina jëg lislaam bi yaa ngi koy def hmm. mooy ah. ko ah. kuñ fi ñaari jabar yaa hmm. a nit ñi mënuñu leen a fay yow mi chef quartier yaakaar naa ne bu chef quartier meloon yow quartier gi quartier gi Sénégal yëpp bàyyi àdduna bi yëpp hmm. benn du ci am problème ndax lépp lu war chef quartier yaa ngi koy def ci quartier bi kon maa ngi leen di ñaanal yàlla léegi nag dama leen ñaan benn affaire. Mhm. cere diw yàqu ko cere <laughs> diw yàqu ko. dëgg ngeen ñëw ngeen ñëw nag gunge ma nag ñu ànd rek ngeen ngeen ngeen ndokkeel soxna si ñaanal ko. Ah. loolu rek laa ñaan may leen wet mos a bu ñu def. Ah, chef de quartier dégg nga lu mu wax kat. ah jéem faa yegg rek. <laughs> ah baax na. <laughs> yeggal fa quartier beeg. dëgg la yéen daal yéen may ni noël bu neex. Ah. waaye. jaay da nga bax de te yit sen xol dana rek la yalla bëgg eh, waaw ah. tank bi dis na yaram bi neexul waye nak wolof jaay neen lu mul la ñak day am deug la nañ dem ngeen dokkel soxna si ñaaral ko bi jaay ci salam fayal ma musique deug la wa xalé na ngeen def ni di nga lang bu lang ndax ki la ki nga jëkk a sëyal dafa ne ci quartier bi def lu baax di wax lu baax di dimbali néew di doole di dimbali jirim di dimbali baayo kon nag nga toog ba buti di ko muñ doo def kat lu bon doo wax kat lu bon kon nag boo làngee foo jaar say géwél toog ndax bu gumel toogee di sa doomi ndey di def ci yow lu baax ajaa daada toog yaay maam jaara xarjata toog il faut ñu wax lii waxal nit lu baax ah am li la war waaw waaw waaye boo deful li la war danga naan yuus ni yàcc ni yasar def na li la war ngi yombay ndey seen mi may bëgg a jiin mi xam na ko waaw waaw yaayi pap yaayi ma ndey yaayi ay sama waaji ko nag mu nangu ndey seen ko yónni mu dem seen caali yaaya la sàkkal baay xolal ko yaay ndey askan wi nga bokk kenn dañu la cey sama waay tey ma wax lii. Ndiéya Mbaye waxal ñii ni woon na fi am. Ah? ñii ni nekk fi lang. waaw waaw bi nga jàkkaarloog ni mu mel. ñii ngi ni duus ñii ni gaj. sikkim ko neeti ndox waaw waaw ndokkule naa ndokk sa bakkan Njaay jaara Njaay waaw waaw ili kontaan lépp a gi ñu gaañ ah ñaanoo gay ko damaa wax ne daan jël Ilimaan toogal kenn ku nekk nag ku doon wax na nga noppi borom dana yi dikk nag dëgg la wax ne nii nga mën a mel sa yaaya root ba ay bagaanam fees tey yàqalu toon sa bàyyi kon nii ngay mel sara bi nga njaaye gàmbeen yi biram seen ni njaaye gàmbeen yi ma xuree gànna seeni ndem ni njaaye gàmbeen mu niil ci njaay mu mag ak ci njaay mu ndaw ci njaay men la nuy wooyee sa baay ci njaay jaay la nuy wooyee sa maam waaye ci njaay aadama la nuy wooyee sa baay gënu toppiroo yaay aadama may gënu toppiroo dëgg la masa saba borom jànd mi nu boole jànd moom ni bu dimeel sangaay bool fi ma koy tàkk ci koom diggante damee ak ceej géer ñay fay jiwéri ñi mi ñooñee ñu naan ko masoo se dellooti na sangaay mbuus firima fay tàkk ci koom caamiñal gu mel toog caamiñal aji njaay ma ca lu nga di dégg dagg bu mi gàccee bokku ndeyam xari wadd njaay koy wooye bokku baayam ndax bu ne bokku baayam màggat la nu Narilene Balé! jugu jugu kala jongay so wi na war ba ni so wari na war ba ni ala day na waa jërëjëf amu leen morom jërëjëf waaye foo ñu wax lii waa gërëm naa leen nag waaye nag waaw ta ñàkk waaye dara nee ba ngeen jéggal ma dama rek iliman te iliman eh, xam nga moom eh, iliman la iliman la la ci des yéen a ko agréé seen bopp waaw jërëjëf amu leen morom daa daa fekk léegi ci waxtaan ak yéen waaw yaay ñi ngi dem suñu xol sedd na kontaan naa lépp di ñu gaañ seen caag iliman ngeen jéggal ma de waaw iliman soxna saa ñu su ma xamoon nga ñaanal su ma xamoon sax dañu ñuy yëngu sax ñu bàyyi leen ba ñu yëngu ba noppi. waaw xam nga jigéen ñi ñoom li ñuy tere dong la ñuy def nga baal ma xam ci loolu. dañuy dellu si seen xel ci yàlla. waaw alhamdulilah soxna si. waaw leen di ziar. seen. seen. si di ñaan seen seen. seen seen. seen kii mooy seen bakar ji jaay seen seen ñoom ñoo ñaan yoon. ñu nag sa bés bi dafa bokk ci li yàlla santaane. te it yàlla da koo bugg kon nag yàlla na barkeel doom yàlla na barkeel yàlla may na la kilifa goo xëy wax dëgg yàlla ku baax ni nii kon nag yàlla na yàlla dool nga ngeen am ci jabootu barkeel. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. loolu rek laa ci doon sax waaw Elimane kontaan naa fi mu nekk damay dañuy dem ma yeewale jiw leen taxi ngeen dugg. ngeen ngeen ngeen ngeen jël taxi. ma gunge leen maa ngi ñëw. chef de quartier da ngeen ciy jël taxi. waaw ma gunge leen di ñëw ah. waaw baax na seen yàlla na fi am sax ngeen jëf jërë ngeen jëf ngeen jëf Adja Diallo kontaan naa. <laughs> wallaay kontaan naa bu baax a baax. yaay kontaan naa xam nga ni biir naa ma chérie xam nga ni gëm biir naa. te nag nañu gërëm bu mel nii. wallaay mm, dëgg yàlla lu jir njaaga tam. lay sama nit la. waaw lii rek la mënoon demee jàppale. doom bi baax lu baax rek yàlla fay. amiin man nag maa ngi ñëw yegg kër ga may. ndax xam nga bala bala moo guddi. fan yi dinaa fi jaar bu soobee. waaw waaw incha allah. bu mel ni ma xale ah. ba ci kanam. waa kay waay. Cissé. Rose. waaw. ah doog ah, noppalu nag sonn nga. ah nga. ah <laughs> kontaan nañu bu baax kontaan naa woo. wallaay waaw gis nga tey ni mu toile toog. vraiment ma toile rek la ma. waaw maaleykum. Ndiaye Diaté. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Ndiaye sama nijaay la. nu mu sant. sama nijaay Ndiaye la sant. yéen a bokk sant xàmme ko. Ndiaye. nekk ah. Ndiaye. na def Ndiaye Ndiaye. Ndiaye ana kër gi. ña nga fa. alhamdulilah jàmm rek. yi may xool nii kat ñu tax a jóg moo tax a jóg sama nijaay. na def gisuma la barki dem ba tey maa jàmm la. jàmm rek la xam. ah. ñàkk jot rek jàmm rek. ma yow laaj Balde man ma gisuloo ñëwoo fi. Balde man. waaw keroog laa fi kalau na keroog sama jàmm loon mbaa dara jotuma maa ngi si jàmm def maa ngi sant ana waa sama su affaire kër gi nee nag luy jot jot na ginnaaw dee moo ne moo tey jii noo ma def sama tànk sa bët ak sa bët sama bët mi ngi nii man daal wax ji lu ko guddal lu ko gàttal ci Ndey Diop moomul kër gi te kër gi ay gone ko moom te alal ji alalu jirim la sama wax nag. man waxal ndànk ay nit laa dëkkal fii waxal ndànk man toppatoo ma nit ñi xam nga lu ma intéressé mooy nga jox ma alal euh, këyitu kër gi mbaa nga jox ma bu fekkee jaay nga kër gi nga jox ma alal alal ji parce que man aw ma caaxaan ah. dënn lay wax te dama tàng te li ma la wax dinaa ko def man. Mm-hmm, jox ma kayitu kër gi mbaa nga jox ma alalu kër gi parce que Ndey Diouf mi moomul kër gi parce que moom moo ñàkk fayda ba léegi di la topp di ut loola neex di guddeeg eh, ko mu wax damay wax ak man bàyyi ko mu wax waxal man ngay waxal man damay wax ak moom. Eh, mais xool naa la ko yëgal ah, ma jox kayitu kër gi mbaa nga jox ma alalu kër gi yaa ma ko kan yow Ndey Diouf laa ko jox laaj ko moom moo ñàkk fay da ba jox la ko xam nga ne bu doon mën ak yow la rek bu leex jox ma. dama ne doo ñëw fii sama kër di ma rek gis. tey nga may xam na man nga fay fekk. déet dimbal leen ma. yow yaa ñàkk fay danga ñëw sama kër di ma arsel. defal ndànk kër gi bu a jaay ma naa kër faale mu seen kër. bañ la koy jaayloo bu kër gi jaru nga delloo ñu kayit gi. ba bu ma yaa ma ko joxoon yow. man maa ko maa ko joxoon mbay jot nga ñëw sama kër. dang nga koy laaj ki nga ko joxoon. xam nga ne alal lu jëriñ la boo ko lekkee di nga trop dama ni sama yoon nekkul ci loolu xaw ma jëriñ la xaw ma maamu jëriñ la da ngeen may jaay loo maa ngi jaay jaragul bu jaree ma jox leen ko su jarul du ma leen jox tous waaw dëgg la ni daal eh xoolal wuy ma dama ni boo leen pi man nag dama ni boo leen pi ma leen delloo kay léegi delloo ma kay du jar delloo ma kay du ko jënd xam nga léegi sax wax ji wax lu ko guddal lu ko su doon jar du leen ko jaay mu leen ko jaay mu leen ko jaay nga ma yar nga day coow léegi jël jël ci jógal jógal ma ne dafa def dafa def bu ma tax su ma ko da nga am looy wax lu da nga xam looy wax lu yaa ñàkk fay dama jox ci waaw dëgg na dama la kay doon waaw déglu ma déglu ma toogal toogal déglu ma. Ah. moo xam Malick lu leer Malick. ba eh, xam nga mën ngay diggaale ma wax sama tur kan Malick. Ah. xam nga ma déglu xam nga mën ngay mën nga diggaale mbir mi di nga ma jox këyitu kër gi maa nga xam ne di nga xam moom may kan. waaw léegi ni jaay ñu ne nañ jëm. maa ngi ñëw ni jaay maa ngi ñëw dinaa ko rek. bu ma la jiitu de. dinaa ñëw léegi moom ñàkk ko fayda. taxawal xaar ma taxawal. Malick yëpp tamit bàyyi bu ma dem dama la bàyyi yow doo xam nga sama nijaay moom xam nga sama nijaay neexul deret moom nii la mel. nag gën a naq deret xam naa waaw ñaañu naq deret na mën ñoo bokk nag kii yow ci yow gis dafa mel yàlla yàlla indi ci nga nekkoon moom kayitu kër gaa ngi defoon dëgg dëgg dëgg Malick neexul ba neexul nag moom li sama nijaay wax dëgg la liy jot jot na ginnaaw dee seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel yoo xam nga ne Maali sama nijaay mii moom jé moo la gën a tàng téeméer gi nu yoon. xam nga loo tàng tàng waaye moo la gën a sens. yaa yaa ko may sens. bu yow yaa yaa tax daluma ci koom. rus naa la yow waaw léegi xam nga loo bëgg. damaa bëgg nag ngir yàlla nag dañuy waxtaan fu mu nekk nii. jaxase ngeen sama xel xam kay kay doon seet fu ne. léegi xam nga loo bëgg dama bëgg nag Malick. xool kii kër gi bu jaree. ki ñaari kër nga jox ma xaalis bi bu ma woon yi bu bi bu jarlee nga delloo ma gi ndax sama nijaay neexul deret de te xam nga moom ay mbiram du jeex. loolu seen yaay wax na ko fii boo dem. waaw wax na ko ba jeex kay wax na fi bu jaree ngeen jox ma ko bu jaree ma jox ma léegi nag. lan la léegi la. laay lay dégloo mooy ne maa ngi am nga amuñu nëbboo du ma nëbboon teg yow. loolu dëgg la euh, kër gi jaay naa ñaata nga ko jaay loolu ma ko doon jaay loo. 5 millions. de kër gi 3 millions laa ko jaay de kër gi mun 5 millions ki koy jaay da koy sëkk de ki koy jënd da koy sëkk dana ci ñàkk 2 millions ñu ko sëkk ci xur ngeen dëkk 3 millions laa ko jaay jëlaguma xaas bi nag. Ah, dama dem avance la ma jox 7 1 million 500 la ma jox des na 1 million 500. léegi nag. waaw ma nga ma def ci sama compte. waaw ndax boobu léegi gisuma la xam foo ne ci xaalis mënu ma de foo ma gisul kañ laa fi mujj barki dem laa fi mujj booba jaree boo jël dénkaane banque seeni borom ne jox tukku bu jaree bu jaree naa la jox 300000 da ngay jëndoon 300000 yi dama ni 1 million 3 1 million 1 million 1 million 300 yi 1 million 300 yi moom laa denc compte bi ba moo jotee xaalis bëri 1 million 500 yi ci des ma boole lépp xaalis bi jox la ko léegi naa la jox 100000 francs avancé la ko ci 300000 francs nga jënd xaw ma or nga jënd xaw ma jaaru nga jënd 100000 francs lu ma koy doy Malick 100000 francs francs yow ñu waxante di nga ma ko jox man ma métti métti ma ko jox damay ne comptant laa leen ko jox da jël naa 1 million 500 yi def naa ko ci compte bi 1 million 300 yi yi fi yeeg man 1 yi ci su ma ko jotee boole lépp jox la ko soo ko bëggulee ma xàcc ji ko 100000 damay tax si damay jël sax dix mille ci dama jam am soxla am tey. dix mille da nga koy jëlaat yéen it Malick kon lu si def. yoruma argent de poche du may passé. ay man Malick mi di. du may passé léegi daal dañuy ànd ah. ah dañuy ànd kay dañuy ànd dañuy ànd dem ville nagal ma yow. man man man lii. maa ko def sax man mi wut lu baax rek lu maa maa tooñ quoi maa tooñ sama bopp da ngay wala. fanaan ma tey damay ñibbi. noo def saa yi ma ñëwee nga naan fanaan damay ñibbi. waaye ma waaw ma toogal ma. xool sa nijaay bu ñu boole bu ñu jaaxal fanaan ma laa wax. sa nijaay xaaral ma xam nga li ngeen def dof. kan moom fan dof ba dafa am ay rab bay dof. waaw nañu nañu leen di ñëw. nañu leen di ma google. waaw kañ dem demal ci mekkaanti mu jox la cuub ñaari cuub la nag bu xonq ak bu vert bi nga jël bu xonq bi jox leneen bu vert bi Ismaïla ya bàyyi loolu nag yow yaa ngi xool Aline dig ko cuub bi ne dangay jox Aline bu verte bi. yow Aline dégg sama yaay. lu muy waxati xoolal cuub bu verte bi mu la digoon léegi nee na naa ko jox aji mbay. ko la ko ko jox. man la ko jox aji mbay bu verte bi. yow loo ciy wax waaw jël jël jël jël jël jël. yow daal yow aji soo mën sama yaay nee na woon dégg. waaye jeex na jëlal. salaamaaleykum. allo. Eh, ah, sacré vous. mais tu vas bien tey. oh là là. yow waruma la nuyu sax. non. yaa ngi koy maman na leen def. Ibou eh, namoon nañu ça va maa ngi nii aji. ça va gis naa la gis moom màgg na léegi la. ah oui léegi la. Ah, ah? Ah, amul jëkkër ah amul jëkkër mais yow de tuuti rek da nga fekk. yaay xamee nga fi.

mën dina ko defal oh. parce que ki nu sonné ci sama mbir yalla rek moko mën ko ok waaw merci merci au revoir ki mom vraiment dina taxaw ci ay mbir yow yay boy am ko fi sétal na ibu ndox ngi ni ñame na sétal te yegul wa laj ko et puis tu donne fi xam lu mo non xagn ko kokuma ci dara yeguma ci dara ha ah, ibu non xolal gis nga yoy yep dafa dama ñëw fekk mu chargé wu sama bopp mënu mu ko réglé xam nga ma ne woon naa bàyyi ba yooyu passé ma door ji te xam naa su ma leen ko yëgalee xam naa sama yaay day ñëw def fa yu rëy yooyu. xam ah, nga c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal. nit ki sant yàlla rek a war. waaw ah, loolu dëgg la. sant rek alhamdulilah. dama kontaan ba mënuma wax. dëgg la dëgg la sama xol dafa sedd. Ah, lii dama la ko yéene yéene yéene ba. Mm-hmm. moom daal nañ ne alhamdulilah rabbil alamin parce que gis nga man bi ma demee États-Unis mm-hmm. bon gars yi foofu da ngay def cinq ans dix ans pour nga may papier mais gis nga sama liggéeyu ndey quoi deux ans laa fa def gars yi may ma papier. Ah loolu moo tax ma mën a ñëw quoi. c'est super kon green card bi nga la yoroon. waaw green card bi laa yor dama moo tax ma ne taf taf laa ñëw xam nga man góoru yaay laa quoi dama nam ma. <laughs> non gàttal la nag. mais nag sant yàlla day naa sant yàlla muy def man dama yàkkamti parce que dama am ay partenaires yoo xam ne. yow da nga koy bàyyi dafa nang leen la. dafa am benn affaire bu ma doon réglé boo xam ne dama bëggoon su ma demee yow laa koy bàyyee nga gérer ma ko. léegi nañ dem rapidement loolu ma réglé ko. Ah, non non non pas pour tey non non s'il te plaît pas pour tey pas pour tey. parce que laay suma yaay ngi nii dama am ay partenaires yu jóge étranger xool man maa ngi res dama bëggoon a wax léegi sax tey du ma fi rek. non muy def. fan yii amul euh, tu reviens demain. Euh, comme ça sax boo ñëwee ma boole la. sans problème ah ñoo ma ko ko nga jëndee ko gros la bari woon naa ne jàpp ci loolu dara waaye yow. nga nit ñi mu gaawee changé aji saw. اي خلي بيك صونون اك ليغي نمو سانجي يا فيم يار ديال ديفال كلو باكو مو نيرك مو الحمد لله رب العالمين مو نيرك مو خولال رك ني لا ديكوراجي وون اك ني وخخ مونا داي ديم الحمد لله يا يالا خيتاي نكو تي بنين بور والله وا ان موي كوتي ديال ايه رك لا سا بوب يا دو بيو سارخ ايه رك لا سا بوب دال اي ريسبسيون بي تايل خمنا مونو ما نياك تايل تايل بري nga wax torop bu ko aji mbay yeug man nga mom rek nena gido gido ja mi wawlunoka oya dogi kato e kato ko eh, oya yeyi mi anndade mi laandi ka woni mi wawluno ɗum on oh, hon oh, oh, kay on ha jam kay fiya kay kay lala sa bokko mbi anamu <laughs> ene laynuma tiri anamu alamu ceeb ko ana bagage man fu bagage bagage dama gis ar fu mu dem moom. maa ne sama xaalis laa eh, wax. eh eh wala eh ba eh, eh, bàyyi sama buubay. eh tiriya bu bëri. eh bàyyi sama bu nga ne ma tiriya. bàyyi sama buubay ban tiriya sama yoon nag su dama ko gis. yow laa joxe sama caabi te yow laa ko garanti woon daw nag sama xaalis sama ñetti weer looyee gis ma ko xaw ma da ngeen ma complot xaw ma da ngeen ma xaw ma lan la. léegi nag. waaw déglu ma wax nga wax léegi dama ma fay sama. du wax nga pare man gaare dama ma boole woon moom nga jox ko néeg sama yoon nekkul ci moom. Eh, eh. eh xool nañu ko sama waaye wala dama ne boo ah, eh, ah, la loolu ko ta ci téma tum bu ngeen yow yaa ngi ko yow yaa ngi ko dara lay def la rey la lay def la waaw yàlla rey la noonu nga ba sulu la ci sa biir ah, la dama la boole nga jox bu la joxee sa xaalis sa ci ci ci bi la afa ana taro nan ana taro de eh, afa lay loxo bu ma la la sa loxo bu ma la yow kam nga yow topp leen fële waay eh, kam nga pour dem client Dia aku boleh. Kai kai kai kai kai. Asa mu boleh. Dama fer kam na. O be yar ko ba. Oh, imo jogi mo toto he imo jogi baransa o passa jemma. Mi am bon. E mi mi boy. Mi ola non gira boy. Mi am da be. Mi am da. Lena ça va? Ça va Annie. Ça va. Ouais, Annie qui est bien nalo. yaa ngi soog a ñëw aji ni nga mel ñaaw na de aji saw gone bu jigéen day gàtt tànk waaye yow dox guddi dox bëccëg doo yëndal doo fanaana aji saw wàññi sa gàllaa ñu jëm la li nga mel ñaaw na de baax na daal jàppe ko noonu rek dina baax leen xam nga lu ma la yëg dama bëgg sama vie privée nga génn ci ba mu set sama dox ak sama ñàkk dox sa yoon nekk ci man ñaanuma yàlla mel ni yow yow mi nga xam ne da nga ne léegi nga ne guy kuy dem fi la lay bàyyi ku fi la lay fekk man dama ñaan yàlla am samay projet di xëy di ko doxi kenn nawloowu la ndax sa yàccaaral bi waa leen dafa am benn affaire bi tuuti bu ma bëgg ñu waxtaan si. muy lan xam nga dama am lu ma metti trop depuis réception ba ba léegi seet naa seet seet seet mais nag affaire bi mënuma ko muñ parce que leen sama yaay dama yaakaar ne bu ñu ko waree maye daf ñu war a taaj ndax ñun ñëpp ñëpp moo ñu bokk jabootee waxtaan ak ñun seet lan mooy suñu idée mais sama yaay dëgg la dafa yor xolam day bëgg mais nag balaa muy dem di engagé wu ci mariage dafa war ñun ba pare parce que kër gi suñu kër la leena mais c'est pas normal sama pas jékki-jékki rek naan maye nañu ko day réceptionné def lu ko neex te waxtaanul lu ñun ay ne kooku pas ko fen du yo ay yow da foofu nga toll. fa laa toll. aji saw bari ki dem ci guddi sama yaay yeewuñu wo ma woo la woo Aline taaj ci sa bi ñun ñet ñep tok mu ne dañ koy may amo lenn lo may laaj lu dul doxi ba sa xol sedd ñëw naan ma lenn ndax dañoo ne sama yaay ba pare naan ma do doxi man gis nga na lu mën yow. su ma solee sama dàll bii di génn ci kër gi lu am farata laay dox te bala maa dem fenn damay tàggu sama yaay ba mu bàyyi ma yow nag taloo sangu taloo fóot taloo paase dara taloo ko ndax dox yow boo même sama yaay suñ ko may te waxuñu la ko sax te te waxu la ko sax dañ cee war a kontaan ndax loolu lañ doon ñaan yàlla waaye réew ba dof sobo sobo sa booy bëgg a dee ah naan ma dañoo maye sabay waxal leneen ma tontu la waaye du lii xale bu tal na yow juddoo goo dañoo maye sama yaay. aji mbay xam ma léegi loo loo may yëgal. na mujj tey na njëkk tey nga xam ma naan ma sab ma ko yow. laay laaxle leena dama bëgg nga yem sa place. yow mi yaa war a yem yow mi rak place rak rek nga mën a yem mënoo koo paase. xam nga da nga ba jiba bañ nga ko ba kër gi divisé nga ko muy ñaar <laughs> jël sama yaay farak moom jël Alioune jaxase ñu gis nga kooku du fi nekkee fii benn kër la ñun ñoo bokk ndey ak baay dañ ngay mën a ñun bokk ñun mënoo ko nga rek le dégg nga li ma la wax sama yaay kat sama sama yaay moo yey ma far ci moom ndax dama koo déggal yem ci ay tànkam waaye bo xeye wor juróom-ñaari dakar tay nak dajale nga bor nga war amo lo nettali ah, sama waaw len dina jexol du jeex du jeex dama bëgg eh yow ko sax eh, eh, non eh, eh ki dafa def xana eh ah leen rus la eh eh eh ci quoi ce histoire là eh no pilo moy dafa kanamam di wàññi ma gel ni wa eh mais yeen ni léegi ngeen ëppal de ha ni daal yéen fi nek di teubal ci koñ c'est ça Aline dama bëgg nga wax aji kodaare mi duma moroma magam la aline barki dem ci guddi sama yaay woñu ñun ñepp ñen ñu ñatt ñu tok fi yépp mu ne dañ koy maye ngay lan barki dem ci guddi ay taxol yow suma affaire yaay ngi dugulé yi donc commencé xew han suma ban yaay ñi ñuy maye ah aline bul ma jaaxal ñaata yaay lañ am lu dul fi ñu dëkkal ci kër gi jar na laaj suma yaay dañ ko maye ko moom day jay wa ba ji ba rek nga ko kat ndax bi ko eh eh taxol eh waxal wax man dank dama suma rom fekk na commencé lok ay pion man fi nga may fekk fi bi ben part mo fe muy man ah Fim, man ma ya. eh, eh. iya. eh. ya, ya. fi décidé hein. Tais-toi là alors. Tu me waxam man dank. Assalamu alaykum rocce ko bi la. Way Eh. Yeen li lan la? mau li lan mako waral? Lan la? Togal yeen. Yeen mel ni yeen nek ci kat yeen do nga deug ci kat bi comme ça ciow li man man kenn mënu fess yes ndax yeen. Waaw kay tok kay tok. Wa man ni xalé li wax ni lan la. Hein? Ci lan? Yaay barki dem ci fan ye sax la. Mayel wo ngeen tok ko. léegi aji saw dofe ba xolam sedd. Eh, ñu naan ma eh, waaw sama yaay lu tax waxuñu ne dañ koy doon. doo noppi yow yaay la da am jëkkër bu bees. waaw. yaay. eh yëgu ko li kay na yëg ko tey. possible yow daal yaay booy d'accord c'est bien beau bu la neexee neex mais yow léegi yaa ngi tànnal beneen bàyyi. waaw man yow man waxoo ko man. eh du ma sa morom yow nag yaa ngi bëgg a gis nga yow yaa ngi bëgg a yëngal xam nga lu ma lay yëgal doom dong nga. te dom nga yem place dom nga yem man sa nday la xam nga luma ma yow lan nga bëgg yow lu bëgg mais nga mais nga informer nga wax ma ko nga wax ma ko kon yow li wax fi da nga bëgg fenno fenloo mais non attends yaay yow mo la yet boobu nag doo ma wax benn affaire manam am dëgg mais nak dama bëgg a xam leen ndax dëggantaan jaay da nga am benn jëkkër dama am jëkkeur Alioune bu ma fontoo Alioune Konaare sa baay dama ko sëy sëy bu rafet ba am len ci yeen ñii mais jëkkeur do ñëw ci kër gi fii suñu borom dil sen baay ma tok di muñ muñ teñdu ko teñdu bu rafet di ko muñ deux ans ku ñëw ci kër gi ma dàq la tollaguma nag foo xam ne damay toog du am jëkkër gis naa ko baax koo xam ne diinam doy na ma jikkoom doy na ma dugg naa ci que ça soit la dernière fois sama sëy nga di ci wax. du sa morom sa ndey laa. d' accord un point c' est ma la wax. d' yow d' accord. ndax yéen ku leen bàyyi di ngeen ku leen bàyyi di ngeen naaw ah. d' parce que c' est ces histoires d' accord yaay booy. waay yow ñun li leen doon ñaan yàlla. suma bàyyi bu jógee mu utal ñu sax bàyyi bu baax kenn ku fi utu Man, je dois une information que dit l'offre Benaffaire qu'on arrête le Santel, Santul Fall, Santul Ndiaye, Santul Delgado, c'est qu'on arrête. Point, c'est tout. fii maa d'accord, dogal dana kooku nag danaa ko de galère, da ngaa fuy da nga yem place doom de da nga fuy da nga réew laxi da ngeen yem place doom neen dogo xam nag bàkk ngeen njaag nag réew a réew bu bëgg qu'est-ce que c'est que ces histoires lii lan la yéen kañ ngeen mel nii yow yaay mënoon na la am ba pare mënul ci leen waaye yow bàyyi leen ñu wax ba suba loolu lañ doon ñaan yàlla bu ñu déggoon ne suñu yaay ngi ci leneen yow lenn naam yaay ana aji saw ah yaay aji saw daal sànq la génn sol na yére ba gàddu saagam dem xawma ma nag fu mu dem xamaluma ko dara moom daal kon day dox rek chaque jour day dox rek bàyyeeku bu ma génnee daal bu ma tegee sama tànk ci biti mu teg tànkam feneen mhm. baax na loolu moom lu may liggéenti lay doon wallahi dina xam ne lu waay ren sa loxo lay naaj yoo xam nga lu yëgal yow moom bu ko toppal deg am nga sama ngeureum deg nga sama ndigal te it gërëm naa la ba ca kanamu yalla ndax fi ma la fa la lay wacc fi ma la wacc la lay fek den nak ndax gis nga ni ñu commencé moo allew te xam nga ñom ñaar dañu jubbu te yow aji saw magam nga aji sarak la allew sa mak la at nañu bay ba ma dem ñu complot dal sa kaw di histoire ak yow bu keroogee nak bul wax bul bouger man mi ndey mbili gi mën na joy sama bëj lawuma la yaay doguma la sax foofu moom na fa sa xol sedd ñoom bu fekkee dañoo bëgg a xeex ak keneen wala ñu xulool keneen dinañ xeex ak keneen mbaa ñu xulool keneen waaye du man mukk. salaamaaleykum man yaay sama kilifa. waaw ngeen wax waxi maam eh, sa maam nag ak a bëgg a àdduna. yàlla bu so. na ngeen def amoon naa la. Ah, nee na tuuti ah, maam maam ku nga fekk dañoo gën a bëgg xale yi àdduna rek. waaw nu may def. waaw chien boobu sooy dem na nga ko fi bàyyi. yaay du mag noonu yow de. maam namoon naa la nag yàlla ça va. yow léegi da nga gëj suñu kër. ñàkk jot la rek nag. mais ngeen ñëw seet si ma man xamoo man aw ma jot. waaye na nga def nag. yow daal doo ko bàyyi xale yëpp. moo yow nu ma koy bàyyi xale yi. maam kay xanaa xamuloo àddina moom tabarkaal. waa ma ne. Mm. lu tax nag bañ la mayee ba léegi seet si woon. xam nga ñàkk jot xam nga booy seetu doo am jot xam nga jàggar jàggar jig lu ne. loolu rek la xam nga itam nag xam nga sama xarit la amuñu na bon. Ah. <laughs> moom mu ngi nii maa ngi jógoon léegi jëm caaree kaw kër ñoom aji ay tijjeel. Ah. ma ne naa fi jaar rek. seet si incha <laughs> naa la. maa leen rek ak tànk yi nag. mi ngi fi yàlla salaamaaleykum waaw. ah te <laughs> ma ne maam benn bu. aji yow nga kii la. maam naa la. maa la ma jaar sa kër. yow yaa ngi dugg waaw yow da nga dul toog. yaay sunu réception bi dama wuti woon cadeau bu ma yóbbu. kii. Hmm. itam da nga fàtte doo expliqué naa la fi dee. doo yëndal doo fanaan. nga ne yaay commencé seeti nga nag yow nit ngay bañ mu toog baax na daal xam waa ma ne ana sama jëkkër ji nag gisuma ko Aline ko naa ne ana. Aline daal xam naa xaritam boobu bu jógee extérieur la xaw ma fu mu jógee. Ibou Ibou moom la moom la seet defe naa. waaye yaay mhm. man léegi man danga may jox sama xaalis xam nga ne man damay ànd ak sama xarit ñoom Yacine Diagne te xam nga ne suba suba la suba la suñu fet man damay dem léegi danga may jox eh. man damay dem man buggumaa toog déglu ma gis nga yëf réew dem bi ma ko yebale ca kër gi <laughs> asalaamaaleykum ah, waaw bet bi moom kañ la fi ñëw soog a ñëw ni na ngeen def ñoo ngi fi naka naka xale yi Ah. yow nga ne naa togg suppu kanja ma togg suppu kanja nga bàyyi ma dem añee woo. waaw damaa demoon benn mariage fële ca gannaaw. addi yow nga yebee sa maam yow. ne suppu kanja la bëgg ma togg suppu kanja gisuma ko dégguma. xam nga la. ko yàlla na bu xorom kese la kenn lekk ko. <laughs> déedéet xaar ma yegg. waaw moom war ngaa toog de xam naa ne jigéen day toog waaw day seet. man daal dama ñëwoon pour waxtaan xam naa sax dama fee jaar ndax caare kaw laa jëm waaye nag foog xam nga waxtaan ak yow. waaw yow loo fi indi tey. loo fi indi tey yow. gërëm gërëm ma gërëm yow bi jënd ko loolu laa la wax. du ma ko jënd da ngay jékki-jékki da ngay dem ah, ah, yow foo fekk waxtaan da koy jéem a yàq ndax da bari yi caaxaan. dem naa suma yoon maa dama laa soxla toogal ci nga bokk. Euh, déglu leen ma damay waxtaan ak yéen te itam du ma magum xamoon mu xamoon naa ko magum waxoon naa ko laa dangaa ñëwoon keroog ci kër ga waxtaan ak man biñ la mayee ba ci ëllëg sa ah. nga ne xale yi dañ laa amee muy Aline Konaare mii ak rakkam aji saw dañ laa amee ci kër gi ndax liñ la mayee dañ leen koo yëgalul. jóguñu ca de ba léegi dañu ma amee. loolu nag mooy sama tànk tey yii. yow Aline Konar yaa ma tax a jóg sa yàlla def na sa maam ngi nii toog sa maam bu góor yow fan nga teg yow ak aji saw mi fan ngeen teg seen ndey ji ñu maye ko ngeen taxaw temm ci xefam ne ne maye nañ ko téyegu leen ko da koy génne kër gi di ko bundu xataar fu ngeen ko teg yow Aline Konar euh, ma ne euh, daal dogu ma waaw loolu naka la mën amee kii may nijaayam te ko war a maye te ko maye waaw waaw dëgg la dëgg la waaw ma ne yow Aline da nga ko woon ne dañ lay may. wax naa ne ko wallaay dafa réew rek de. yow sa ndey wax la loolu. maam daal ñoom dañoo war a def sama yaay teg ko teg place ndey waajur du moroom de sama yaay barki démb fii lañu woo wax nañu ko ñun ñett ñëpp nee nañ ne kay dañoo bëgg a indi sama yaay problème rek. Eh, waaye li sama yaay wax moo am. ma ne du ma lay gën neel yëg nga ko yow. Eh, waaye bul di ko ci des yow man wax yow dama nga téye seen gémmiñ laa wax seen ay kilifa ñoo fi toog yéen xam nga ni même seen ndey ji su ma ko maye woon ngeen dégg ko ak fu mu mën doon ci àdduna ngeen dégg ne sama maye na maye na sama yaay yéen da ngeen ci war a bég gat gudd loolu sax loolu la yàlla bëgg du dëgg mm-hmm. ah dëgg la dëgg waaye ñu maye seen ndey ngeen mel ni dégg nga moom ay dëmm yu jaafur nii rek lii mooy lan réew rek ah? tonton tonton dogguma la ñii seen yoon nekku xam na mu bëgg ngeen téye seen làmmiñ j'en fais mon affaire dégg nga wax ji ñu maye ko ak ñàkk ko maye yëpp su ma yoon nekku si j'en ai rien à cirer mais yéen xamu leen kenn ko may xamu leen ko man nag naa leen ko wax mu ngi tudd Malick Ndiaye Fara Cal Cal. escroc la. is xam fi nekkee. luy escroc. xam nu mu fi nekkee maam. Ah. ku mu dégg ni sa jëkkër dee na. bàyyi fi alal dalay lay xaar ba nga simi sa tënk mu ñëw takk la del sa xaalis bi fa sa jëkkër bàyyi lekk ko pasar pasare ko fase la sa njaboot toxo. Ah. yow wax ji foo ko déggee. yaay gis nga Malick nu mu def ba ñëw si kër gi te kenn xam ko man noonu laa def ba xam fu mu jóge est-ce que nga lu mu wax lu ma wax kër gi nag ko naaxee la sant encore maa ngi koy rappelé suma yaay. tonton xam nga lu mu bëgg góor googu baaxul kooku def na ko du benn du ñaar du ñett te encore les recherchés par la police. ñu sagaru kër gi nag du fi ñëw di ko jël wala muy jël suma xaalis bi nga xam ne moom sama sama bay bay bu ñëw lekk ñu torox. est-ce que dégg wax ji. te nag benn affaire maam. Hmm. nga yow a yow yow a hmm. fu mu egg du man eggu fa fa la yem. loolu nga réew waaye maa lay wax sa bopp gis nga kër gii fii lay yewoo tey fii lay yewoo ëllëg moo tax ah. waaye cim allahu sa bopp di nga toog ma la doon wax léegi ah, naa nag. waaye nag ngeen baal ma ndax man. Mm-hmm. dégg naa li gone gi wax xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg. Mm-hmm. waaye nag tey nam xel. waaw ndax dañu ne saay saay waxul dëgg waaye yàq nam mu xel. baax na maa ngi yegg jàkk ji. xel ah ngay bëgg a gëm waxi xale. ah nu ñuy def comme que moom moo xam mu ngi dem di dikk kay bu ko waxee dafa at man nag moom la doom sëy rek laa la sant waaye bu ci loolu lépp nekkee ah daw ca ba ngay ami tànk maa ngi ñëw nag caari kaw laa jëm. li ma xam ne da ngaa gëm li xale yi wax. ah déedéet gëmuma ko waaye nag. ku gëm ah ko naan dafa réew dafa dof dafa réew man nag maa koy <laughs> ay lii moom fii rek la am waaye nag daan xam ne fii àddina lu def waxulu ay di njàmbat ñu jëla séntu ci avion nga wàcc ci charrette fii rek la am. yow eh ana koy waxal yow. Mm. yow ana koy waxal. xam dama weer sama géej ku weer yaa moom. Eh, yow nag yaa ngi doog a bakk ma. Eh, eh, yaa ko yaay waxul laa yow fekkee da ngaa réew man maa lay faj déglu ma li ma la wax. da laa la wax yow yaay nga may am na nag may. waaye bul ko indi fi mu ne la ma wax ko li ma ko bëgg a wax man yaa la xamal ne man dëkk bi nga xam ne boo ci man xoolal kaadi laa am man da ngay am sax commande sax commande sax da nga koy am ndeysaan du yàq réew baax na baax na da ngaa réew rek sama sëb bi di ngeen ci génn de mu ne fu mu sa gisee lii gan gu ñew seet la nga koy do da tax ba du ko dóor eh, sama eh, yaay mom la ba mu wax lool ngul mu ne yow tas nga fi nekké waxuma ak yow tasuma benn li ma wax dafa yar da mel ne yow yéen yam 6 ak 9 ngeen moo tax nga koy parlé waaw bu ñu dee ak 9 mu yem nekk waaye àdduna ngi suñu kanam nekkul ci suñu ginnaaw nañ dox rek mustaasi na dang koy wàññi itam jaay ah da ngay xamni nak yitam kilifa nga nak kilifa day kilifa day yor mustaas eh deug mustaas ke bu ñu jaay ci boutique mom da xam lay <laughs> da na manki <laughs> na nga def sama chauffeur bi xam nga dinaa ko dàq. bés bu nekk mu tuj pën. bés bu ne mu ni sama pën xanaa oto day tuj benn pën waaye ñaari pën. waaye boo ko dàqee li nga def nag lu tax. wut geneen. waaw xanaa loolu de. boo fanaan amee ba tey kenn sonnatul. waaw xanaa loolu de. waa na xale yi. xale ñu ci biir bëggoon naa waxtaan ak ñoom nag. Hmm. waaw. Euh, woo leen moo ñu ñu ñu waxtaan daal ndox Wolof Njaay dafa ni yenn côté xëddeen. dañuy waxtaan bala ñu yem. du dëgg. aji saw. allahu akbar. aji. ana leena waale leena foofu al ñu ko naat. ana Aliou. papa yaa ngi toog. waaw maa ngi doon. la. maa leen woo woon. Ah, damaa bëggoon a waxtaan ak yéen. gannaaw léegi man maay seen bàyyi maa fi ne. mu bëggoon a waxtaan ak yéen mu bëggoon bu leen ma ñawri ci dara dara dara dara na ngeen ma def ni seen baay bi fi nekkoon bi leen jur fu leen seen baay féet woon man danaa leen fa féete lépp lu mu loon leen defal dinaa leen defal lu ko raw ci lu baax ah, yéen tamit na ngeen ma def ni seen baay bi fi nekkoon def ma baay gannaaw léegi yàlla def na may denc seen ndey mooy denc yàlla ci sama gannaaw kon kër gi maa fi kilifa loolu laa la woon naa leen waxtaan waxtaan waxtaan ci yéen aji euh, ak leena ak yow Aline Konaare gannaaw ba ma waxtaan ak seen yaay ba noppi. Euh, Léna gis nga yow ba métti naa la duma su ma tëddati nelaw nga may yee ndax affaire kaso kaso yi dinaa régler sa problème dégg nga li ma la wax. Ah. sax yow déglu ma. déglu ma yow boo moytu naa la kër gi ah. dégg nga li ma la wax kër gi ah naa tëdd di nelaw nga may yéen. voilà dégg nga li ma la wax man boo ma dara voilà dégg nga li ma la wax rek. yaay affaire. kër gi santul Delgado santul Fall kon naa ngay la sant. da nga wax yow chanson la pour yow. ah oui c'est chanson waaw bu ma neexee bu ma neexee et puis sax yow

mais maay seen baay ah, bu leen fàtte loolu. yaay suñu baay kay. na ko na ko yemal na ko yemal ci yéen nag. lay lay la na ko yemal ci yéen moom mii doom mu génn fi moo gën a yomb nga génn ci kër gi. kër gi doo fi génn pour lan nga fiy génn. te xaal defal nag mais defal kii da nga xam ne ne gone nga jàng nga waaye gënu ma def ci dëkk bi xaaral. muy je yow kii réew. waaye ñii ñoom nii rek ni ba kay. xamuñu àq waajur. ñi dañoo ñàkk kenn si sax gis nga ñii bu leen sama àq dalee ak àq Malick Ndiaye ma du baax ci ñoom de <laughs> waaye baax na ndax it nañu am place su doom. maa jóg ci ñoom. xanaa bëgguñu woon nga am keneen boo. dëgg yàlla. ah man de waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw jaajëfal seen yaa mel nii. ak naa def naa def yaa mel naa def. na yow ma ngi nii yow daal day seen. keroog réception ba jotuma laa laaj sax kan lañ la may man daal kër buri laa jaar rek buree ñëw léegi sama kër ma ne ko amoo toogaay jógal ñu dem ma kër nday seen buri ne ma monsieur Loppi lañ ko may Malick Ndiaye lañ ko may ma ne ko ma defoon monsieur Loppi lañ ko may dem léegi ndokkeeli ko ay yow nday seen monsieur Loppi muy def ak ah. ah, nim la bëggee woon mais félicitations. Ah, merci nañ ci mariage bi waaw loolu moom yal na sëy moo tax ñu ndokkal si la yow de daanaka man dama ne woon dama ñëw sa kër sax maa ma yëm yëf ndax sama waa kër yi mbaa jàmm xanaa Aline Konaare aji saw la jël ma witt paa bi du nekk ci kër gi lu tax ñu maye la te yëgoo ko du fi nekk kër gi nga santul kon Njaay konaare la sant bëgg maa rey bëgg maa rey wax te man duma seen moroom seen ndey laa yow nag diggam yaag seen bàyyi ay couleur ngeen woon te jigéenam ngoon bëgg naa nga wax ceeg nga wax ceeg ñoom duma seen morom ndax réew nañu ba fu réew ndeyam yow lii la la bu ma amee jëkkër ba tey mais yu ma jàmm ma wax maa day génn kër gi ma ne ko génn kër gi Malick Ndiaye moom du mën a génn kër gi bu génn dee am ka Ndiaye génn waaye Malick moom mënut a génn moom waaw dafa bëgg nak mo xox bopam te bu moytuwul nak dina ko wax nak nu kër gi muy wax nan kër ko na la sant dina ko wax na ma defal ak bàyyi ba ñu kër gi dama bañ moy moytu. léegi de la la bëgg xamal ndey seen ba nga dégg dëgg. lo tax lu dëgg dëgg bëgg dëgg dëgg tax ma wax la ko ti gis nga malik jaay lepp lañ la wax ci mom amna lu dess gis nga ñi lay wax ci jaay xamu ñu malik jaay man mi ma xam malik jaay trian international la bandi la wuyu la kat la kat la wuyu guddi sul génn guddi la te lii ma lay wax nag soo ci amee dara nooy sikki saaka laaj ko buri mii déet déet nday màgget bu ma boole ci lii yow fi mis da nga taskatu kër nga yow man sama yoon newu ci man xaw ma Malick Ndiaye nday dama la bëgg a xamal ne sëyu jàmbur yoonu kenn ku ci diggante jëkkër ak jabar ku ciy wax danga ciy wax lu rafet ndax moo fa mu toll ci jëkkëram diggante doom ak ndey ku ciy wax yi danga ciy wax jàmm nday màgget nag su ma xamoon ne tànk yii nga fiy dox si du ma gunge ba di fi agsi yow seytane nga ah eh, ndeyseen man dama la ndoppale si man buri mi duma taskatu kër nak xam nga luma la bëgg yëgal bo gëmé li la ndey seen ndey magat mi di wax di nga tass sey wi nek fi di taxawalu te kat jigen taaram muy sey seytane nak waxul deug way yak na xel ak xalaat te na la xamal dara sama ju bondi mo gën far bu baax bi fuf, du ben mo deug la ma bëgg la xamal nak ne sa jëkkër ji téye ko bu baax seyel ko sey bu rafet te bañ gëm ay netali hmm. yow nak bet nga ma bett nga ma trop ci kanamu yàlla nit ñi daan nañ ko wax dañ daan wax ne jéer boo woyaan bu la mayul sax nga xas ka waaye man nag bëgg naa la xamal ñett ci àddina gii nit ku baax day téye lamiñam nit ku baax du lu mu dëgg rek nettali te du xam lépp wax lépp waaye gannaaw yow nag yow tas këru jàmbur la dese man nag banaa la te nag ma ba tout tranquille te à partir d'aujourd'hui laa wax sama kër bu fa tegati sa tànk benn ci yow moomu géer gu ñàkk njariñ gi nga doon yow fu may woyaani nga topp ma luñ ma may nga ñaan ma ko wala nga leb ma ko amoo njariñ gëj bëccëg amoo ko guddi géer gu baax day mel ni maam Yaasin jaay yow nag nday seen waa nday seen Malick Njaay mbaa jotu laa leb xaalis lépp na ma 500000 da day defar oto. oto. waaw ban oto. xanaa bu yàqu sax amul. amul oto xam nga nu Malick Ndiaye di su amee junneem mbaa ñaari junneem oto kër jigéen bu mu romb jaaxaan fa bu jaaxaanee saali ne xoolal ma sama sëfër bi foofu wol ma sëfër bi yow nag leen la yow gis nga ndey seen dangaa këmmal xam nga Malick Ndiaye nu muy def bu jógee ne la omelette laay ndekkee fa yàpp gën a duufee mu ne la saafal ma fa ganaar gën a rëye mu ne la roofal ma sañca ba jekk nag xeeñoo parfum boo xam ne nag bu tolloo ca àngal ba ubale koñ bi noonu lay def waaye ndey seen Malick Ndiaye est wax na la am na jabar mu ne amul jabar amul jabar waay dàq la yow war ngaa xam jabaram Binta Njaay ndaw soosu dëkk tali Ecotaaf te sedd nii rek buy buy dox wax nànk dox nànk di muuru nii rek di yor socc bi abandonné ko juróomi atu yàlla yónneewu ko demu fa dara li ma lay wax nag mooy leen daw ca ba ngay ami tànk Malick Ndiaye bu duggee sa kër gii booy boo nga fas sa kanam kanam du kaso waaye koo ci mu xam ko mm. waaye nday seen li may wax ak yow mënuloo maa wuyu di wax ak yow nga di ma ñàkkal fay la nii mel ni ku seetaan na ma xam nga lu ma lay xamal na man mi maa ko def waaw man mi gis lu baax ngay sama géer di sama xarit ma gis lu bon lii dugg sa kër gi boo ñu bii dugg sa kër gi nar a yàq sa kër gi ma ñëw di la ko nga di ma ñàkkal fay la maa ngi dem nag danga doon yooru client boo jël yóbbu boo romb yàpp ko ki sa ki yàpp nga client boo xam ne nag doo xam foo koy yekkalee man nag man dem naa maaleykum yow nga ma na def. maa ngi koy sant. Diop la Diop seet seet na nga def. maa def maa ngi def. fii la Malick dëkk. Malick waaw fi mu dëkk. ngi fi. waaw sorewul de. ñu jigéen ñi ngeen. moom laa soxla def nag. yaa gis de. amul yaa gis yow yaa ma yóbbu fu ne fu ne yaa ma yóbbu yaa ma yaa gis yow. waaw. yaay fan laa la yóbbu yow tamit. fu ne yaa ngi koy yow xooloo ci gone yi xooloo dara amoo fu la amoo fay de. man waaye baax na. da sa kaw. xam nga maa de. salaamaaleykum aleykum yow la. waaye fa koy tëgg moo jafe. Malick yow booy toxu da daw di nëbb man ngay làqoo ko nëbb. Ah, ah borom kër ga dafa soxla néeg ma ma war la fa gisuma la xam nga ne yow mën a maa rëcc si rëdd Ndakaar gi mën a maa fen benn ndànk laa xool bu ma fa gisoo ma ne maa ngi ëmb te yaa ma ëmbal na leer ne yaa ma ëmbal ah, ku ñu ëmbal da nga yuuxu nii dox may def dul yuuxu ah, lu tax saf na ma kañ damaa saf métti may bëgg a ku la ëmbal nga man ngay laaj ku la la ko laaj mag dem mag mu day ni man dinaa def loolu loolu seen jaay yi toog ah doo def loolu bu mu man daal loolu yow yëpp sa wax moom mi moom moo ñàkk fayda ba topp la ku bon kii nga topp ko ba mu teg la nii nga la teg waaye man yëpp xooluma ko man moom li ma. sama xool kër jàmm waxal ndànk. toppatoo ma kër jàmm faalaw ma kër jàmm waxal ndànk yow da nga am kër. yow da am benn kër. loolu ah, la amul topp toppatoo laa la wax. lu leer laa lay lii convocation la ñu ngi nii daf ko jël ak nga nangu ko yaa xam huit heures na la fa fekk waxoon naa ne dinaa dem te dinaa dellu si man maa la gën a wuyu man maa la gën a xam yow yow dinañ dem yow nañ dem. waaw léegi da ko jaawal ordonnance bi. man sama yoon nekku si. ordonnance c' est kay kay kon sa kër la ko kon wadd na. moom la moom la mi demee ñaaw waaye. wadd na waaye man toppatoo ma loolu man boo am ordonnance ak kii convocation bi huit na la fa fekk. wi sinon bu la boo ñëwoon moom nañ la jëf bi nga xam ne man maa la gën a wéyu maa la gën a xam yoon man. ah mbay nañ nekk. bàyyi ko loolu lu tuur damay toog kañ man damaa mën a demee noonu. yow da ñàkk fayda amoo ful toog ma bàyyi li may wax ñàkk ma fayda. kim ñëpp yow bi leex wur woon gone naa la bay at ma la. boo bay ma bay ma dem naa sama yoon man. lu ma wut fii waxuma benn dànk xanaa sa ëmb bi neexul ba bu tax neexuma naqari maa tax ma ñew fi doxul nag kër jàmm nga fi fekk ani nit di wax ci kaw dama waxul benn dànk fi ñew sax yow xam nga fi ñew ni ma mel tax ma di fi ñëw li ma teg ba pare bëgg a bëgg a daw réew ma dëkk bi jël naa xaalis bi dinaa fa ñëw alxames ban alxames dinañ daal xaalis bi xaalis bi duma ko fi bàyyi moom xam nga sama nijaay boo waxee loolu do dem gis nga sama nit lu tax duma dem lu tax duma dem may ma sutura maa la ko ñaan bu alxames na ñew maa la ñaan lolu may ma loolu ba alxames ak jàmm mën naa maa rëcc mani jaay kii kum doon seet ndaw si man la doon seet ah bu dee seet doo ma ko présenté ah moo ko dafa gaaw a génn laata ma la ko présenté génn na kii mooy kan sax kii looyu mooy sama jarbaat bu nekk yëmbal jabaram la dañu am problème mu ànd ak ñu ñëw fi moo la ñu wax mu doog a fase xaw loolu kon maa ci biir dama yaakaar leen rek. alhamdulilah. <laughs> woy yow daal. <laughs> yow. waaye la mel ji na ni. Poutee eh, bu fi Poutee ah, lan la foo jógee. Kalle di saabu. yéen ni kam Malick yàlla jàpp na la tey. yalla jàpp na la noonu kamu nga. Eh, eh, eh, fii a jàmbur la. ba eh waxuma loolu ma ne tànka jeekul suufu jeekul yoonu jeekul te noonu yàlla jàpp na la noonu damay toog ah. wala la. ma ma sama dafa tàng sax yow Maaliki. ci biti de du ma génn ah, ma ne yow nga nga. ci biti yaa Muhammad Rasulullah Maaliki nga sàcc suma kaalisi jëkkëri ñetti wéri location nga daw. nga defe ne yow du ma la jàpp. ban location. Eh, ah. naa la jàpp naa naa la noonu yàlla ñëw na noonu. tey wa naa la gis nga ah, eh, Sokone xam nga kii bàkku la Malick lan la su ma eh, léegi xam nga yow jigéen nga man jigéen la wax dégg yàlla il faut noonu ma ma dé ma wax la gis nga kii bàkkul dinaa la wax dafa daw ak location ñetti weer suma jëkkër ma benn dëgg ñetti weer yow naa ko montar soirée fayul courant bi man waxuma yow léegi noonu kii laay waxal courant bi yo location bi yo ñu yeewu tun daka ni o dogino puccet waaw jeex na bu soo am naa koy di jeex na puccet fii kër yaa yaa yaa madame taxawal dinaa la jox ah, ah, eh, eh. laa su laay. loo koy ko laaj ñaata la day day jox naa ko Mokhtar Souare nga di ko fay. doo eh, bul wax loola bul wax loola bul wax yow seetaane nga noonu xam nga nii la def man yoo ma jëkkër yoo. a eh ñaata lay toll ñetti weer ñaata lay toll. Eh, ñetti weer man kaw ñetti weer yi ñaari junni yi du juróom-benn téeméeri. juróom-benn junni. juróom-benn junni man kaw ma koy dégguma si seen wakk yooyu si seen wakk yooyu man dégguma ko ah kon téeméer gulu ji jeego jogani la élocation o ah. eh ëpp na loolu sax yow yow eh waxoon naa la de kam nga duma duma noppi no amul loolu yow doo rusu. yaw doo rus yow mag bu toll ni yow kanu xam nga nit buy def na def lu baax dafa adduna bi dafa yaatuwante noonu suñ fu ñuy tas fu ñuy tas ñun ñaar dafay kat xam nga nekk bi kat xam nga yow taw na ndey jóob boobu jigéen boobu. nga sonnal ko moomu laa topp ma kool am ma il ma wax ak kii noonu madame. am am am ci bëgguma wax bëgguma wax am. Ah, awa am am. adduna mi daal am kon tey di. ci jeexam ci mais yaa tax mi yaa tax mi yaa di ko jël te damay kam ñaata la ah. damay kàbb ñaata la. am naa dora na man fàllewu na àqa. bi ma danga jaaraama naa ma danga. waa jërëjëf eh, eh, gaaw boo yeexee ma ñàkk jabar toogal. jam du jam du jam xamul du jàmm ah xool li ma sol nii. waaye maa li mu do yo sa pyjama bi nga genn jaxle munu ma tok ci kër bi ana ndey sen ma nga fa bo yexe ma ñak jabar. lu ngeen jotet dar jote wuñu dara xale yaa ma lakkal rek. han ah? xale yaa ma lakkal may ñuma jam may ñuma salam ba ndey sen legi xale ma ngi tey ci man fi mu ne ni ay mali waaw ak setan yi wër nit ji xam nga ni bëggu ñu ko baax bo baax yu yàq sa def di won dama bayyi suma doon dem. dama ni dama ni bo yexe ma ñak jabar ndey sen ya taxoon ma takko ya ci man dara motax ma jóg ñu dem est-ce que yaa dégg lépp lu ñu wax ne bul ko gëm dara amu ci dara dañuy sos. on a yaa ngi teel sama xel de. bu ma tey jii damaa jóg sol sama dàll ngir ñëw waxtaan ak yow tey nag awma benn jot fi ma nekk nii pour di fi toog lu yàgg. ndax gis nga ma nii daayira laa jëm li ma fi bàyyi keroog sa diggante ak xale yi moo ma tax ñëw tey ndax keroog mer nga ba bu ma la waxee doo ko dégg su ma la yeddee doo dooma doo déglu. nii nga xam ne nii nga jàpp sa sëy bi yoon la waaye nag damaa bëgg nga fàttaliku ne sa doom yi yaa leen jur tey nag xamuñu lu dul jaw mii di seen ndey ak seen baay ba ci àllaaxira kon bu seen baay génnee àddina nga toog ba yàlla may la beneen borom kër bu bokkul ak seen baay ba ñu xamoon muy tëdd ci seen lalu baay bii ñu di ko gis ak seen bët nu nu mën a def xolu firaa ngi dugg leen te nag du ñoom rek ñoom ak xale yi yépp la dégg nga li ma la wax kon nag xam nga lu fi sës léegi bul jiital sam sa xol dama bëgg toujours nga jiital sam xel dajale sa njaboot gi waxtaan ak ñoom ba delloo si seen xel ñu mën a ànd ak seen bu bees bii. sëy bi neex. yaay xale yi defuñu lu réew gis nga malik amul benn défaut dañ koo bañ dong ñi fi jaar di wax lépp lépp dañ koo bañ amul benn défaut. Hmm. deful lu lu baax xale yi nag dañoo réew bëgguñu maam ku baax waaye sama sëy bii tuuti nañ ci tas ko maa kita ci tey bëll. baax waaw. salaamaaleykum maaleykum mau gumel si ma gëj gis. maa ngi si seen siise siise toogal toogal. yaa ma si naka xale yi. alhamdulilah siise. day naa dëgg ñaare ça va siise mer naa def. maa ngi fi rek siise ñu nga fa jot naa sa yóbbante ba doon. jërëjëf jërëjëf siise yal na la yàlla fay. yàlla baax na sax meer ma la fekkee. ndax maa def fa ñëw kër ga. Uh-huh. di ma wax ci diggante fekk lu ma am fu ma war a dem si waaye dama ko foofu mu ñëw far yàlla mu def ma fekk la fi hmm. moo taxul ma sa diggante ak maa lan moo ci ne ndey hmm. ndey wuyul sama diggante ak maa yi day dara nekku ci yaay naa ñu ma ñu waxtaan tuuti ah waaw kon nag ma yegg ci biir ba bismillah waa ndey li ma maal wax de neexuma wax dëgg yàlla te si yàlla mënoo ko bàyyi sax mu fekkee waxtu mu fekkee waxtaan déedéet xam nga gumel nee naa la man ak yow dootuñu ay xarit ay doomi ndey lañ loolu dëgg la war naa wax ak yow lu sama yaay mi dul yëpp Malick lu ñu wax rek mi ci moom ndax Malick keroog pour ay pour futu lañ xaw ban façon raas lañ ñoo nañu fi naan dañ koy fayu xaalis hmm. indi fi coow lu du jeex ñu ne déet na nday màgget xam ah. ñu ne fi wax na ma ay jikko yo xam ci mom dara neexu ci man nak dama son li ma bëgg moy li ma doon ut ko amon diini am ngor am islam waye kat li ma gis xamul mu doon ndax man malik xale kat ñu muy bëgg ay yee di te fiñ to ni ma ngi bëgg rus ndax ma gis day jëmul kër te sama xel nga bëgg tay de waye nak ndey man de waxon na lu leer la la waxon ndax maal bi ma yeble ci dama ko nañu ba waxtaane yow yow mi nday mbili ji bu waxtaane yow ba pare ma doog a ñëw ba ma ñëwee wax ak yow it nga wàcc kon nag am na lu bari loo xam ne boo gis lu lu feeñ ci sëy rek nuyoo na mën na sama wax gudd gàddu ci bari ma bëggoon daal ngeen seet nu ngeen def ba ànd ba xale du leen ree maa dafa am ay noon noon ay noonu bañ ko ree loolu daal mënoon sama tànk yi de wax dëgg yàlla loolu li ma gën a man de loolu ndax man de bu ma ne bëgg ma waxuma dëgg bëgg naa ko lool ndax man xam naa fi ma féete ah, kon na nga dellu sax wala nga muñ rek nga sëy ak affaire xaalis bi nag foo ci toll marchandise bi. Malick fayalu ko. déedéet waxu sax lu ci jëm. ah mu mën woon dina la ko jox. Malick da jox ma ñaari dërëm nee na ma daaw yaa ma war a jox ci commencement ba nga ma waxee ma wax ko mu ma ndey moo lay jox ndax jox na la xaalis. waaw kon baax na dinaa la jox. waaw ndax mu la joxul lépp tam dinaa la jox xaaj bi après ma joxaat la. waaw baax na. ngeen seet ngeen def rek ba ba juboo rek. waaw baax na seen. jërëjëf Cissé nga nuyu ma xale yi.